برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فاينيو سمركي أزاتي زي سمدري باي ساسي سي لما ورد وحنكم أصلا بابا أحمد وحدك نلون كو أمنا فما تدرى تاخد yaakaaroon rek ni kii am na lu mu xam ci tool bi nga xam ne ñoom ci la ñu nekkoon kon ñu ngi koy gërëm ko gërëm ci njàngu alquraanam di dugg sax ma yaakaaroon ne <laughs> Maodo Maodo sax mosuma ki mooy jàng ndax moom mooy jàng di comme comme ni góor gi jàngee tabaarakallah ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm. dina itam suñu doomu bàyyi doomu suñu abbas itam mooy juróom jaar nañu fu bari góor bu baax bu am xam-xam te ubbeeku nag li nekkoon nekk ay doom dafa daan discuter ak ci ay masala léeg-léeg ñu waxante ak moom ci ay masala ba ku nekk tànn mu ne bu bés bi dellu seen yéen ñëwaat ñu bàyyi bu ñëwee Dakar ñu ñëwaat di discuter ak moom masala bi ñu mujj discuté boobu ñemewuma ko wax ñu discuté ci certain ay borom xam-xam wala ay marab yoo xam ne dañu denc ci soxna dafa ëpp ñeent man Moussa Diakhaté ne ma loolu bu ngeen fi dellu si da fekk ma étudier ko ba wax leen ñooñu bu fekkee am na fu ñu ko teg wala déet dogal baa ñu fay jëlu si mu dem ci rafetlu àlla eh, ki nga xam ne moo di Alioune muy Badou moom sama sang la xam naa tey balaa ma fay jógee dina ma jox mbubb eh, ndax sama nijaay la baax daraan def ne su ma bëgg a gis su ñëwee su ma ñëwee. nii lay def campagne bi nag génn bu kenn dox sama diggam nii man ngay amee Sénégal ngeen nekk ci dëkk bi ay ñaari weer du la gis loolu nag ñoom gën lañ duñ ci xam lu bari mais góor gi xamoon na euh, toujours ma di ko fàttali sëriñ Mbay wala Modou gis nga bàll ñam ca afe yooyu ñoo doon sëriñ gannaaw gi la yeneen yi feeñ rek euh, ñenn ñi am barke ak asmaa waaye ak cëriñ ci jolof affaire rek la woon fa la ñëpp jógee Balla ñoon moo ante ñoon ñoo bokk ndey ndey ak baay Balla moo jur sëriñ afe sëriñ afe njóogu lañ ko doon wax sëriñ afe moom moo jur abdu ñoon abdoo jur safiyatu moo jur dabbaax moo jur kii anta nag li nga xam ne mooy jigéenu Balla ñu bokk ndeeg baay anta benn doom bu góor am muy ndëri saar suñu maam yi jolof gulum caacaara leen jóge moo jur ndëri saar ndëri jur amadou saar amadou saar la ñu wax amadou alquran moo doon jàngal xadimaali ci caare ak alaji taala lo dafa am génn sénga gu mag bu nekk suñu jëkk ñu doon ko tuddee sénga paate loo paate loo moo jur sëñ yooyu sant loo ci seen lopitaan moo Seydi Hadji Malick ñu ne ko sama maam Amadou Sarr eh, Amadou moo jur Seyni Sarr Seyni jur Fama sama yaay kon ñii yooyu samay doomu nijaay ca Jolof xam naa fu fu ma fu ma leen gis rek li xam ne seen ab jaam ñëw na waaye dañuy pare dañuy pare dañ koy jënd eh, rafet na naa jotaay bi lool parce que asatise yi bu ñu nekkee ci jotaay bu ni mel li muy tekki mooy jataayu xam-xam la li tekki mooy jataay bu yiw la waaye jataay li itam boo xam ne bu nu yaakaar ay njëriñam la eh, mbooloo mi ko woote itam wax dëgg du ñu def mooy eh, gërëm leen bu baax ndax it eh, amul kenn ku gën a rafet wax woote jëme ci ഗോതക്കില് ഇഡ്ഡലി ഇനി വറുത്താണ് ഇറ്റിയാൽ ഇനി വറുത്താണ് ഇറ്റിയാൽ ഇനി മല്ലിയ ഒപ്പം വെച്ച് ഇയാളെ ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله ونحن يلبكو ونحن منصور يعكس بولا إلى جابلة أقوالك بأقوه بي رغتني جيني leen di nuyu bu baax di leen ñaanal suñu waxtaan tey neexut waxtaan la woo xam ne néew na ñu waxtaan ko ba mu jeexee ronk yi tuuru wuñu moo tax duma ci sawar a dugg mu di waqaatu Karbala ak maqtul Xuseyn waaye mën naa am fekk dana am lu mu fàttali nit ñi ci ahlul bayt ndax ahlul bayt bëgg leen ci jaamu yàlla gi la bokk yéen ci bi dafa doon wax ne ñii ñooy sama ahlul ku leen bëgg rek man nga dugg maanaam ñooy samay famille loolu la xaj Mansour wax nañu ci jéem a waxtaan tuuti kon nag gannaaw bu ñu tuddee borom tedd bi boroom tur yi sell ak melokaan rafet yi di ko ñaan mu julli ni ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam gannaaw loolu mbokk yi personnalité yi borom xam-xam yi asatise yi fi góor ñi ak jigéen ñi ñi ñu woo ñu jógee fu sori ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. waxtaanee Karbala li muy tekki mooy wax la ju nar a dugg ci xolom ku gëm yàlla di jullit rawatina ñi bëgg ahlul bayt tey li muy tekki mooy waxtaane yonent bi alayhi salaatu wa salaam wala nga waxtaane ay saxaabaam saxaaba bokkul ak bi ko yi wax saxaaba baatu arab la mooy compagnon mooy ñaam la yonent bi alayhi salaatu wasalaam suy jàng usul muy la théologie dañ lay wax ne saxaaba mooy ku bokk ak yonent bi jamono te gëm soo amoon gis nga ko wala gisoo ko ku dund ci jamono bi yonent bi nekk ci kaw suuf te gën ko kooku saaba lañ koy wax su fekkee mu gis ko nag wala mu jonjog moom mu bokk ci saaba yi gën a mag te kon ñooñu dañuy waxtaane radiallahu anhum ajmain eh, léeg nag waxtaan yi mën na neex na yëngal ay xol ndax ay soppe yu bëgg ahlul bayt am na yoo xam ne bu ñu ko waxee ci ñooñu mën na leen yëngal النبي عليه الصلاه والسلام ريوين موي امام يونت ييب نا مولن موتلي يتام كي موم لا يالا موتلي ني تودي ا بروفيت كي لاكو جيخل تاك نا با دوت لي ني كان تي غناو لك اي بروم خم خم اي ام اي اولياء وكسايقون في علماء واي لا نبي بعده ابدا البيت يمنا موي نيغا خم لا يالا مولن تان mu njabootam jagleel leen ay ngëneel yàlla laaba leen ci lépp loo xam ne taq la wala sobe la wala kéefér la wala topp la wala bokkaale la loolu buñ laabee ci bokkaale ci génne topp ci ak kéefér ak ci nifaaq ñooñoo la yàlla euh, setal ba tudd leen ci alquran innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutaxirukum tatxiira kooku suratul ahzaab la loolu ñooy ahlul bayt ci gàttal waaye saaba yi nag mooy ñi nga xam ne yàlla moo ñu digal ñu roy leen te topp ci seeni jeexi moom ñuy wax ci alquran naan ulaika alladina hada allah fa bi hudaahum iqtadi kooku suratul anam la saxaaba yooyu nag rawatina ñi nga xam ne ñooy jiitu ci gëm yàlla ak gëm yonente bi ak ñi nga xam ne ñooy jiitu ci gàddaay ànd ak moom salaatu wasalaam wala boog ñu dugg ci diine euh, dellu yas riba balaa muy gàddaay alayhi salaatu wasalaam ñu dëkk fa ñooña ñu tuddee leen ni ñoo ko doon dimbale ndax ñoo ko dalal bu ñëwee ñooñu ñëpp amoon nañ gërëmal yàlla ba alquran tuddoon na ko mooy ñi njëkk a dugg ci diine ji njëkkoon a gàddaay ak ci Medina ak ña ko doon jàppale alquran tudd na leen والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kooku suratul Tawba la mbokki jullit yi pour ñu waxtaanee Xuseyn fokk ñu jéem a xam Ousseynou Ibn Ali kan la kan la nag foog ñu wax kon baayam bi ko jur moom moo di kan ndax munoo waxtaan ci imam Hussein te waxtaanoo ci way juróom kon waxtaanee Hussein mooy waxtaanee saaba boo xam ne bu mag la kenn a ne ci Ahlul Bayt baayam mooy Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib di nga xam ne mooy bàyyi tax yonent bi alayhi salaatu salaam kooku muy Abu Talib te moo yar daanaka yonent bi gannaaw bi nga xamee ne euh, xamut baayam maamam gaaw a génn àddina ci juróom-ñetti atam yaayam génn ci benni atam baayam bii di Abu Talib mooy ki nga xam ne moo ko yar Abu Talib nag. ku bari ay doom la waaye wërsëg ba bari wutoon njaboot gi nag sonal ko yonent bi aleyhi salaatu ba ñu ñëw mu ne lu mel nii bu xewee ci famille pexe ba léegi gisaguma ko ci jullit ci nit di ko def kenn ci famille bi ku bari njaboot te ba wërsëg bi bariwul mu ne nañu séddoo doom yi ba bàyyi ko kenn wala ñaar daal dina man jël na ay kii ne jël naa diw jël naa diw ñu sedd doom yi ba bàyyee ko loo xam ne dana ko attan kon loolu mooy sabab ci yeneen ci bi yar Ali ibn Abi Talib moo tax bu ñu koy yónni fekk Ali fukki at rek ci lay toll kon loolu mooy li nga xam ne moo koy indi woon euh, Abu Talib euh, moomul yar yeneen ci bi ci waxtu woowu moo Abdallah ay ashiqa la ñoo bokk ndéeg baay ndax euh, gis nga yeneen ci bi yàlla da ko may loo xam ne ay baayam ñu bari lañ nga xam ne Abdul Mutalib jur na bari nañ waaye ñi ci bokk ak Abdullahi baayam yaay benn ndey ñooñu ñeent la ñu doon ñeent yàlla dogal na ñaar ñi tuub nañ dugg nañ ci lislaam ñaar ñi tuubuñu dugguñ ci lislaam ñaar ñi tuubul te dugguñ ci lislaam mooy Abdul Azzat alquran tuddee ko Abu Lahab kooku tuubul ak Abu Talib bi nga xam ne moo ko yar te daw na ca sax ndax mu nekk ci sukkaraat yéen ci ne ko bàyyi waxal rek laa ilaha illallah bu ci teg sax ne muhammadu baat boo xam ne ëllëg danaa ko mën a wax ci sama borom waaye mënu ko mënu ko wax ndax boobu kàngaaru ñu ma ko jàll ñu ngi toog ñu ngi toog naan ko ndax da ngay bëgg bañ nag diine yi Abdul Mutalib sa baay da ngaa bëgg si jooju diine dem ci diine yi gune yi tax na amul tawfiq pour tudd kàddu googule ba muy génn àddina daal li mu mujjee wax mooy ala millati Abdul Mutalib maa ngi dee ci diine yi Abdul Mutalib te diineem duutoon lislaam maa ngi doon ci fatra boobu yónnee bi yónnee ci bi kon kooku ñaari baal yooyu Abu nga xam ne moom denc gi mu doon denc euh, jigéenu Abu te Abu nekkoon lu yàlla vice président Makka loolu moo taxoon mu bokk ci ñi gënoon a yàqu ci contre yonent bi seetu sànn rakam bu góor moo jur gune gi leen kooku Abdul moom itam tuubul Abu Talib noonu yeneen ñaari bàyyi nga xam ne tuub nañ kenn ki mooy Abbas Abbas tuub na gàddaay na sax di fekk yeneen bi euh, Madina fekk yeneen baa ngi ñëw di ubbi si Makka di tase ca Raabir yeneen bi ne ko yow yaay aaxirul muhaajiriin ndax gàddaay jeex na gàddaay bu ñu mel ni euh, révisé politique. soo dafa am lu fa yëngatu te d'accord te mënoo ko dindi ngay du ci foo lakku loolu moo doon gàddaay yéen bi ne ko jeex na ndax tey damay dem te damay ubbi mag ñëpp danañ dugg ci diine wala danañu danañu dee su boobaa nag révisé jeex na làqoo ci fenn dootu am kon nag anta axirul muhajirin boo ko di abbas nekk nit koo xam ne eh, ay histoire am lu gudd la ci diggante boog yonent bi ba ci doomam abdullah ibn abbas Abdourahim Abbas doomu Abbas momu, di cousin direct bu yonent bi Abbas mu ngi bokk ci kibaarul ulama moo gënoon a xam alquran ak tafsir alquran ñëpp ñi firi alquran saxaaba yi yëpp ci moom la ñuy wéeru téere ci demee naan qaala ibnu Abbas moom nag dafa ne woon kalbi dafa naqari mu ne yonent man lu ma dama koy fàtte jël ko taf ci bi leen allahuma allimu tawil allahuma allimu tawil yàlla yàlla na ko xamal nan la ñuy tekkee alquran loolu moo tax bi ñuy wax naan am na ci ay yu kenn xamut ba naan wa rasixuna fil ilm Abdurahmaan Abbas man ci laa bokk man dégg naa ko kooku Abbas moo ko jur kenn ka mooy ngay dégg yàlla gi Hamzatu ibnu Abdul Muttalib nga xam ne tey moom ma nga des ca xare Uhud mooy deuxième guerre bu rëy bi nga xam ne yonent bi defoon na ko ak Quraysh ci la euh, Hamzatu des moom itam xisam buñ ko doon wax tey day gudd ak lu tax mu def faak yooyu itam leen lu gudd laa dama bëgg wax rek ne ñeent yi bokk ak euh, bàyyi bi ndeeg bàyyi ñaar yi jullit lañ ñaar yi dugguñu ci diine loolu nag bari na ci usul wax nañ ci wax ju bari est-ce que Abu Talib noonu bëggee yonent bi ba daan ko wéy naan ko wax ajmalu min kalam taraw qattu ayni wa akmalu minka lam talidu nisa ni mu bëggee yonent bi ak di ko aar ak ni mu sonnee ndax kooku yaakaar nga ne war naa mën a bokk ci nit ci safara almahul déedéet ndax comme yonent bi alayhi salaatu salaam doon ne sama ramm dana ñëw ci ñëpp ñi nga xam ne tey euh, jege nañ ma wala sori nañ ma te tuuti ci gëm yàlla euh, mu ci seen xol ñooñu sama shafaa da leen di yóbbaale suñu ko toppoon itam ak li wax ci shafaa ak ñuy dem ak aljanna ci xeetam ni mu baree ko itam dafay dafay gudd loolu moo tax ñu yaakaar ko ne kooku bokk ci loolu Abu Lahab moom eh, alquran wax na bu yàgg annoncé na ma nga safara waaye dinañu keroog bi yonent bi génnee eh, ganee àddina eh, su way bati ñëw ne ko yow de saraka ju góor jooyu muy Abdoulaye jawar ji Souleymane Aminata am na doom yu góor bu kontaan kontaan ne ko yow sax goreel naa la ñu ne jëf ju baax jooju tax xadis Buxaari yentil na ko Muslim yentil na ko nee na bi si altine bu ne Abu Lahab bi ñu woyofal mbugalam ca safara yuudacu fi daxdaaxi min annaar yaxli biha ummu dimaaxi dañu woyofal mbugal ma bët yóbbu ko ci beneen jàq jàpp safara boo xam ne ci dajal yi lay yem waaye nag tàng na ba yor gi sax day bax loolay woyofal nga ndax nga xam ne euh, ñoo bokk euh, Abdullah euh, yi ak nubuwa mu di ak Yonent bi mu ñëwee ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk na imam Ali mu ngi nekk moom moo ko yar. moo tax ñuy wax ne eh, Aliou moom dañoo yónni yonent bi rek fekk moo ko yar rek mu dal di gëm yàlla mësul si jotul ab xëram moo tax Busiri ne bal huwa shamsu ma alayhi ghita mësul si jotul xëram mësul jaar ci kéefër bay tuub yëpp bu ne jaar nga ci après nga tuub waaye moom mësu ci jaar ndax dix ans la ko la bi jox ko ko mu yore ko yónni ko ci kanamam. fekk agent soriwul foofale rek mu daal di gëm yonent bi alayhi salaatu salaam kooku Ali ibn Abi Talib ku amoon kashfu la ku na wax ne yàlla may na ma ci kashfu loo xam ne tey bu ma xoolul saxaaba yi ku ne mën naa laa wax sa kër ci aljanna fan lay féetee kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku imaamu Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib moom nag mooy ki nga xam ne mooy bàyyi Useyn وبزي علمنا لكم إن كنت دين كرم الله وجهك ما يكرم كلام موسو سجوت القنا ولا يكرم الله وجهه ففل الجري آه، كم نكو البوصري واحد آه، فن غني عدنا مم علي مومنة مجي غني عدنا أكرم فنوية يترانت معنا بي نتبي غني عدنا بمعم فنوية لبرو جدو كون مغنك لباي ما تحدهم لنم ديجي ali mu ngi bokk ci fukk yi nga xam ne yeneen bi moo taxaw di wax ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi dundee toog mu ne yéen yéen a ngi ci aljana fukk yooyu ñu tuddee al ashara al mubashiruna bil janna imaamu ali ibn abdul mutalib ci la bokkoon ñooñu boo génnee xulafaul arbaa muy abou bakarin sadiq omar ibn alxatab ousmane ibn affan ali ibn abi talib talhat ibn ubaydillah zubayr ibn alawam سعد بن زيد بن ابو وقاص سعد بن زيد ابو عبيده عامر بن الجراح سعد بن مالك نونو نوي العشره المبشرون بالجنه نوي نك يبن باي دار بولنا بتي بني وين نانا وطلحه جمال خلفاوي وطلحه وزبير سعد ثم سعيد عامر وابن عوف ذكر عشرهم kon suñu waa ji nag muy Ali ibn Abi Talib muy bàyyi Useyn Useyn mi nga xam ne mooy borom moom euh, moom la ñu denc la woon Fatimata Zahra Fatimata Zahra euh, boo gisee turam gën a siiw ci te te daanaka mooy caat te turam gën a siiw mu am ay mag Zeynabu di taw jigéen bi mu am Roqiyatu am Umu Kalsoom te Fatimata gën a siiw du dara lu mooy li yéen ci wax ci moom ak li mu jur ak rakam ji mu ko dénk ba yéen naan Fatima bidaatun minni Fatima aw daggit la ci man ndax am ñi ci des moo leen jur waaye wax jooju dafa am lu muy lu muy dund kon nag Fatima moomu la mayoon Ali ibnu Abu Abu Talib ay imam Ali fekk fekkee na xare yu bari yi nga xam ne yonent bi def na ko جاري بري فكنا زولنا كعلماء وي معنا مستشار بوني ورين على دين كي وقت يوم دي وقت نعم الإسلام دفتح خيري جازي الإسلام دفتح خيري جازي أكتن لنرد نيني لرين قير لرين دول جي ديني جي في جنة جانجل الشيخ غابي يسمى سنة يوحنا كي بين قصيدام نينا ولكن رسول الله دار ما غزر وقصد عدوانا ورد جفا ينتبه مصر قيخ دففيو أجلو أجنوني واي واي ولكن رسول الله دار ما غزا قصد عدوانا ورد جفا ونك مستشري قولين قم لولك موم دون فيو لكي الله وخيني قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ndax bu leen yu kamaa yuqaatiluunakum kon da ngay wax ne moom mooy njëkk a def leen nii ni ñuy xeexee ak yow kon loolu moom la ko alquran indee. Mansour yëpp nag imaam Ali mën naa ne yi ci gën a bari eh, fekkee na ko eh, imaam Ali bi mu ci fekkee mooy Tabuk te boobu bañ fa demee jotuñ faa teer ay bakkan desu fa. Eh, te boobu rek la fekkewul ndax boobu yonent bi buy dem di génn day seet benn saaba ne ko yaa yore dëkk bi su ma interim yaa ko yore ba ba may ñëw bu may dem tabbu Alioune la wax ne yaa yore dëkk bi ba ma ñëw tollu moo tax Alioune dal di li nga xam ne moo di xareet ba tabbu alimaamu yëpp nag kon des tabbu ndax karat moom la ñu dénkoon na réew mi boobu muy dellu imam ali eh, yëpp noonu ak ay jàmbaar yu tëw bëggoon a sonal jur yi daanaka moom moo leen moo eh, ñu dëng ñëpp leen rey ci yahut yi ak kur yi ba seetee xale badar eh, kàngam nga xam ne ñoo fa des di abu jahl ibnu hisham ak ñoom umayata ak utbata ak ngand yëpp gennoo ji Ali mooy ki nga xam ne moo leen rey bu mu songo ak ñoom euh, tey jàmbaar yahud ji nga xam ne kenn mosu ko mënal dara ku mos a moom ci xare dee nga muy mar marhaba Ali moo koy ci xare xandar euh, euh, nag ci xare ci xare Xaybar comme ni mu dajee itam ci xare xandar ak ngande yooyu de moom Mahab nit la koo xam ne. jaasi bi ñoom la yore woon jaasi bi bu ko génnee dañuy gën ci safara xonq ndax deret kenn warul ko dara boo boo waree fas bu ma la tawee day tolloo ca kaw. man jàpp yow ca Xaybar mooy ngeen tëm na keroog bu ba yëpp dara fekk ko fa. moom ba commencé moom di ba kan la mu tali naam du tali naa la rek di rek sa bay commencé sa doom sa bay sama doom. Aliou ko man tey ànd na أجمل بوين كلمة خير من مرحب شكي سلاحي بالو درب أي برمي من مرحب ما يبنغان قال بيولي ما يتجمع السريانس كقري وما عليك عمون كشوة نكو يومي بين بنت بين لنا منا منا ما يجي وجه جون سيس ما يجي حرب أي ترى من ما يجي هذا الشيء له عربي من أسايد بين يبتر الخير أدينا أنهم يبقى جوبي بالي لي زين نقول اللي تدي هناك علي دانتوني هذا علي خيار انا حيدر خير قليل من الله يهدي كون لي بيجي بي على خير كون من بعد اللي جنب بدون علي موتو بومجي خرب آه، خيبر عمري ما بدو تجي خرب خندق لأن بيتي نجي كي خير ور مدينة ينو لاغي نيدف ها آه، ينو لاغي ديسو سلمون فارسي orpes la waaye Iran la man fi woon ko ne ko ñun ñu lakkat yi ñaajo yi de bu ñu bettal dañuy gas benn ngaa dew muy benn xilab moo xam ne dana yaatu ba oh, fas du ko mën a tëb waaye dana xóot ba bu ci dugg doo mën a génn ñu warale ko dëkk bi rek su defee noonu du ñu ne gas ñu seddoo ko nag gii nañ ne yéen gas yàkkal fii jii fii li war a bi fii yëpp bi feeti woon nag سلمان الى يوم جاء البيت الى سلمان من اهل البيت وهو غلب محمود بن من يقاس بيت بيه من يجد بان خير ويعرف هو خمنة ما نقول لك لا ان يوح بي انت بي مرادي نيو تشبير تشبير فخمة دال دي جل غاسك بي وكتي جامي تشبير من خي سفر الجن من واحد من الاسلام دنا دم بروم فارس dana dem romb penk jant na dem ba fa jant bi soyee yëfee yi di ko déggaan ah yaata yaata li ma tuwaatun loolu ñu leen di dig lu sori la du mën a am mukk yooyu yëpp yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ay kéemaan la yoo xam ne def na ko fa mottali ngan dal di ñaan mottali ngas ma ñu gas xandax bi ba mu pare yëfee yi duñ mën a jàll si jullit ñi itam duñ mën a jàll ñu toog toog rek di xoolante loolu kii yàgg la Xuzayfata al-Yamani yonent bi ne kan moo ñi may jàll pax mi dem ca Quraysh waaw booba taxaaluf la booba Quraysh la ñu coalisé ak bani Quraysata ak banu Nadir muy yahud yi nga xam ne ñoo dëkkoon Madina ñooñu la Quraysh waa Màkk euh, coalisé ñii ñii yéen a dëkk ak moom mu yahud yi ñun ñoo dëkkoon ak moom dem ñu coalisé pour jekkali ko moo tax ñu bett ko yéen ci bi ne Xuzayfata yow man ma naa ci ñoom ba xam ci lan la ñu nekk daa xam itam ci lan la nekk fekk balaa boobu am na ñetti gawar boo xam ne Ikrima doomi Abu Jahl bokkoon ñetti gawar yoo xam ne ñëw nañu tëbal seen fas pax mi jàll fekk yi jullit ñi dañu commencé nag di waatoo ak ñoom léegi nag jàmbar jàmbar yëwat ji Amru ibn Abdu Wudd jàmbar joo xam ne di tey waar ko ku mënoon si waaye ku mënoon si la bu ko defee nañ ñëpp bàyyi ñu géewal ko moom ak jullit yi daanaka ku ma ñeme ak biraas ku ma ñeme ku ma ñeme wàllu nasaar ku jóg ne waxuñu la keneen ku jóg mu ne waxuñu la beneen bi ne ku ngeen bëgg ne Banu Haashim li bëgg suñu noonu yi kenn ci ñoom ñoom laa soxla et bi ne ko anaa yi mu ne maa ngi leen kon ñu la soxla bu dul man du Hamza ko yow la kon ñun ñu ñu la ñu soxla ci mbir mu ni mel mu ne ko dégg naa te dinaa ko def ñu ko bàyyi mu ñëw mu génnee jaaseen bi moom yonent bi jox ko mu ngi kaala woon gën a bi ñu kukk mu jël kaala bi las ko ci boppam jël loxoom ci bi ne ko demal boo xam nga ne fokk dana gay bu ñëwee ba nga xam ne yoon na bi day tëb yëkkati ñaari tànk koo teg ci kaw faay yi bu defee loolu di ci boole jaas yi cawaale jaas mu ko defee a ban na fas moom itam a caay jaasi kaay ñu xëcc ci fas wi ak ceebu waa ji jaasi dugg suuf si quoi amul bàll jaasi day dugg ci suuf ba du ko mën a génne ba du dee si mu koy kër kër yi génne noonu mu sëggee Aliou fekk fa rek ci bopp daal di ceeb rek daal di jekk ko kilifa yi mu wane gannaaw da koy yërëm. la te xam ne kii jàmbaar ju am expérience la. dafa wane gannaaw moom. di ñaan di jëm bu xool sax. ci ay waaye. waaye ba mu ko defee noonu ni ma nee gannaaw. dana ne wallaahi. lay xattalu waa Aliou Aliou rëy na ko rëy na ko rëy na ko rëy. ñëpp daal di tudd yàlla. kon jàmbaar bi leen toll itam àñ ko jekku kon noonu la nit bi ñëpp ñu ko mas a jaaxal ci jàmbaar ñoom ñëpp Aliou moo leen liquidé. ba Badar moo rey Utbata ibnu Rabiata xare Badar imam Ali moo ko moo ko rey وفي هذا القسم يقسم موينتي علي لون أكا حمزة آه، كاسن بين الدوم باي يوم نت بدون لي ودو أك عتبة أك ين نيال جمال قريش يا دول عند رينكي حمزة بين كله ابن الحارس موم كي مي ابن الحارس موم آه، سيدنا كوز موم يخرب موكو شيء لو موم شيء لو بنشهر البرجس آه، ترى مبغاونا xasatu bi tamit ci kaw na di ko jekk li moom itam donc kooku moo di Aliyu ibn Abi Talib yaayam nag moom mu ngi tudd Fatimata bint Asad ibnu Hashim Abdul Manaf benn famille rek la ba ñu jëloo Fatimata bi gàddaayee ba atam ñaareel ma dana sanee mel gira li ko may Fatimata mooy at mi ñuy xëye xëye Uxud mu juróot moom nag ak Xuseynu Zeynabul Kubra Umu Kasum Kubra ñii la Fatimata am ak euh, imaamu Ali Xasan nag mooy taaw bi sëy na toog du yaay rakkal mag la magante nañu war fukki weer wala fukki weer ak benn li ko waral mooy euh, dafa ne naam ko lu ko ñaari lu di taxal tax itam loolu te borom xam-xam yi mujj nañu koo xam mooy ne jëpp jigéen di am doom nàmbalu ñaar nga mu commencé gis deret rek na ne ku ñu naan gisal rek jaar na yoon def waaye loolu du kaaw Fatimata moom Fatimata du gisal rek ci kenn yi ba tur lañ ko tuddee du gisal rek du gisal rek amul dara ci gisin loolu moo tax gaaw a ndax Ousseynou eh, loolu loolu nag docteur yi sage-femme yi gynécologue yi jaaxal na leen parce mooy nekk doom ji ci période bi nga xam ne war na génn muy bu wéda bu wéda bi nen boobale bu tassé ak hayawanatul manawi su boba rek dom lay dal di sosu kon rek mën nga wax ne bu deret jo bu fekkee nak amul benn hayawanatul manawi nen bi day tek su tëjee mu nekk deret ñu ne dafa gis ragal mu ci période tam nangu ma ki nangu léegi nag lu tax mom muy ëmbati loolu moom deret jooju du ko gis loolu moy kéemaanu yalla yéemu na waye war te yéemu ndax ki fi indi aadama amul ndey amul fi hawa mu amee baay amul ndey indi fi isa mu am ndey baay kon nag mën naa ëmbaloo jigéen ji dul gis régal loolu moom taw di yàlla kon nag mu ngi mel ni ñeen ñaari yi jigéen Zeynabul Kubra ak Umu Kubra ba ak Asan ak uh, Useyn Imam Ali ci xilaafam def na lu bare bare bare bare imaam ali euh, dem na xare bi ñu tuddee siffay euh, jamal ak siffay maarakat euh, jamal boobu Aïcha dafa contrôle ali bu fi Ousmane jógee ali nekk amirul muminin Aïcha radiyallahu anha dañu Babacar sama séenante bi jubóowuloon ak moom c'est très normal ndax boo seetee alquran xadisul ifki ba ñu jógee ca xare Bani Muraysia di ñibbisi eh, Aïcha réer ci xisa bu gudd ca xam gi dogoon ak mu koy wëree xare bi dem bàyyi ko yonent bi ne na ñu gont ñu gont rek jël teg gi daal di ko teg ci fas yi dafa tuuti jigéen si tuuti la woon yaakaar na mooy ci biir teg gi ndax teg gi teg gi jëkkër par dem fa mu fajoon aajo mu ñëw rek gisul kenn ci saxaraa bi coono boobu mu nekkee na amoon na benn waay bu ñoom safwaan ibnul muattal asulami safaan moom lii liggéeyam ci xare bi mooy ci seen gannaaw lay topp lu ñu bàyyi mu ramas ko euh, safaan ñëw fekk sono saa ngi cëpp ci saxaraa bi ak naaj bi tàng bi mu daal di ko xam ne ndax xamoon na ko balaa xijaaba ñëw mu daal di yéesal gëlëm gi ci kanamam ne ko soxna si waral mu dal di war mu omat ba muy dugg Madina rek nag Euh, kilifa naafiq yi Abdoulaye Mbow ibnu Salul daal di wax xam jar loolu lay ne wallahi ma najja minha wa ma najja minhu kee muccut ci kii waaye kii it muccut ci kale loolu mooy xadisul ifki comme ni ko alquran waxe loolu nag bi yéen bi ñëwee ba mbir mi feeñ mu dem ci jumaa ji naan kan moo may dogal ngant ci sama soxna si nga xam ne xaw ci moom lenn loo xam ne euh, lu bon la ba mu waxee waxam jooju nag ñëw ci kër gi woo imam ali woo Zayd ibnu Sabit euh, yi nga xam ne moo doon mbaayalam bi woo waa kër gi daal di leen gis nan ngeen xam ci ñoom mbiram Aïcha benn jigéen ne moom day gune la xamul dara ci jubadiwut dafa nekk gune nag ba mën na tiim sungu si fariñam doon ko tooyal mburu far nelaw ba ibn yo lekk ko loolu kon moom gune la waaye amul dara lu bon imam ali ne ndeysaan li ma ci xam daal mooy yàlla xatalul say mbir ngay denc jigéen di ñuy wax ci moom dara daal maanaam sama xalaat mooy nga bàyyi ko yàlla jox la keneen wax jooju dugg ci Aïcha baalu ko ko mukk na wax jooju dafa rëy baalu ko ko bu fi yénent bi jógee mbir mi di dem bu Ali nekk xalifa Aisha kontor ko bañ dajee ci xare jullit ñi xaaj ñi ànd ak aisha ñi ànd ak Ali boobu la ñu tuddee maarakatu al jamal maarakatu al jamal eh, mooy gëlëm ga mu waroon mais Aisha dafa mujj reconnaître ne moom moo tooñ ndax ku xamoon xadis la dafa noonu yéen tamit dina na woon sama njaboot danañu xeex mu neen waaye ku ci jaar ci dëkk bu tudd ab ab ca xajje di ko boobu kaa tooñ ay sa ci guddi mu jaar dëkk bu ñu naan ab dëkk bu ndaw xay xay ko boo boo boobu mu daal jooy ne man maa tooy ay ay fi waxoon na ma lii waxoon na ma ku jaar ci dëkk bii xaj yi ko di ko boobu moo tooñ kon man maa tooñ boobu maa rakatul jëmal dafa gudd fekkee na maa rakatu si fay maa rakatu si fay mooy diggante Ali ak Muawiya si nagasaan ko ko bi ñu ko reyee bi ko suwaar yi reyee Ousmane li ñu ko reyee lu simple la waaye lu compliqué la dafa amoon benn jaaru bi yenent bi amoon bu bindee ci ñetti satr Muhammad Rasulullahi bu bindee mooy tampon bi boobu bu Ousmane nekkee xalifa ci loxoom la waddee ci benn teel yi naan biiru alis ñu ne le fait que Babacar yore Omar yore dara mu si cee xew Ousmane yore ko jaar bi wët ba réer loolu ak man ki la ci moom jàppal ko boobu beneen bi itam ko mën bokk ci banu mayet te da ngeen gis léegi ci kanam ci Karbala ñaari famille banu Hachim banu mayet am suñoo jubo comme dafa bokk ci banu mayet am na ñu bari ñu nekkoon ay ci région yi Omar ibn Khattab da leen a folli woon yëpp Ousmane delloo leen ndax ñu ngi bokk ci xeetam bokk na ci marwaan bi nga xamne mo moo egypte mu delloo léegi nag ñu jël fonction yu mag yépp di ko jagleel banu mayata ak alal jëri jox yépp ñom ñu gën ca xej ja daal loolu nag ba ñu jullit ñëpp yéegee nag ñu ne Ousmane mii dafa commencé jëm ndax lettre bi bind falaat marwan te Omar folli won ko loolu bind ba daajee Ousmane mu ne yëgu ñu ne ko boo ko yëgut kon ci faible en tant que buur sa cabinet yi bind lettre di fal kenn te yëguloo ko c'est soo ko yëgee moo gën a grave ndax ku dëngoon nekk gouverneur di naan sàngara Égypte ba Omar folli ko nga delloo ko loolu itam lu grave xam nga man mënatul mucc soo ko yëgee du baax boo ko yëgul du baax kon xisa bu gudd la suwaar yi dafa ñëw révolution noonu révolution noonu la doxee ci Ousmane ñu sonn ko ba rey ko bañ ko reyee nag fekk balaa muy dee sax dafa bind Aliou lettre ne ne ko way kuntu maakulan fakun xayra akili wa illa fa adrik nii wala ma umu zaqi su fekkee dañ maa nar a rey Aliou na fekk yow la bu fekkee àndoo ci ni may reyee nag dimbale ma mu yebal ñaari waxambaane Asan ak Useynu yore jaasi di ko wattu ca buntu këram waaye gars yi bu ñu jógee jaaree ci buntu dañoo teppi tappat bi ci gannaaw fa lañ jaaree fekk ci biir néegam mu ngi jàng alxuraan ñu rendi ko ci kanam jabar dina ñëw dimbale te ñu ko rey ci gën a garaaw mooy Muhammad bin Abubakar Unyebete isikinyo Usman di. Usman ne ko tenge isikim kusabai orman. Bai wahjo yuto tahu tahu ko jaju. Rak ni dal diko likidi. Lolo kooku moo di Ali ibn Abi Talib fekkee na ko maarakatul jëmal ak maarakatul sifayri ndax Maawiya dafa jóg ne deret yi deret yi Utmaan Ali la koy laaj. comme bi fi Ousmane jógee moom mooy amirul muminin mu ne kon moo ci bokk ku bi ko pour bëgg a falu léegi na loolu mu andi woon coow ba ñoom ñëpp ñu daje def benn xare ñu tuddee ko maarakat siffay ñaaru ñaar siffay benn du saffay ni mais siffay benn place la boo xam ne ngi diggante Cham ak Madina mu ma war a loolu mbokk bu fekkoon ne tey seen pexe moomu àggutoon kon amaan na duñ mën a liquider Ousmane waaye ci loolu lañ ko jëlee eh, mujrim bi nga xam ne nag gannaaw gi ndax dañoo dajee ca xare boobu ñu ne léegi dañ masla eh, nit yi Muawiya yi dañuy jël ay ay xeej ko ci ay kaamil yëkkati ko ca kaw naan ñëw leen nu àtteewoo kii ñu set ku tooy euh, Aliou di yebal Abu Moussa Achari boo ko am sëriñ rek la woon comme man da ko gaara la xam politique mu yebal maa yebal gën a yeewu ci xeet bi mooy Amr ibn al-As xam ne gouverneur la woon ci Égypte ba ñëwee ba ñuy négocier négociation bi mu jul euh, aboutir ci lu baax ñu mujj d'accord ci ne dafa jeng nañ ko ray Muawiya علي دفجان نانكو ري معاويه دفجان sahaba yeb كبار likide ni لين لكيده يسرات كان ci جيتي ni ñu juboo ci lool ka don ray Muawiya on ko fekk Sham ni si da ko don teru ci bunta jakk ja bu buy si fajar mu ray waye bu mu génnee rek waa ji da ko song waaw yow ko yaram jaasi ci gannaaw la ko dal dal ci xotti taat yi ci biir suux yi rek la ko dal dara jotu ko mu wér am réew ñu asit waxoon nañ ne moom itam ko nañ ko liquide waaye keroog mu sibiru génnul julli ji fajar moom loolu dafa sibiru ko sowe moom génnul imaamu Ali nag moom comme ba nga woon Eh, Abdourahman ibnu Marjam moom mu ne ma man comme dañ ko bëgg a rey baa koy rey ndax man sama digg ak Aliou dafa amoon problème ne ko ah problème bi lan mu ne damaa mën benn xale bu jigéen ci kuufam ma bëgg ko lool ah bëgg ñu may ko xale bu jigéen bi ne ko pour ñu sëy day da ngay da may daal mooy sama can soo mënut a rey Aliou daal muy sëy mu ne ko loolu kay lu yomb la mu koy bett baax waaye ma koy bett de hmm. di la ko léegi waxoon loolu moo tax mu tërul ko ci jullit suba di ñëw dafa ñeme ba buy dox comme yonent bi du geesoo dara mu yëngu ci gannaaw ba mu geesoo ku amoon kàttan euh, gudd bi dafa gàttoon diggante ñaari wagg yi dañoo sore woon sikkim bi dafa guddoon ak faas yi sëpp lépp bopp bi set wecc mu leer ku amoon doole ku amoon kàttan waaye waa ji da ko gannaaw caw ko jaasi ci bopp mu daanu mu daanu nag euh, mu xam ne léegi ñu ngi ko doon xaar ci jullit suba gi mu xam ni euh, dee rek moo ci des foofu rek yëguñ lu may asan ne dee rek agsi di jooy imaam Ali ne ko bul jooy euh, sa baay dafa shahid ndax yonent bi mosoon nañoo toog ak moom ci jabalu Uhud wala jabalu jabalu doj bi lox dal di yëngatu mel ni tremblement de terre nit bi teg ci tànkam bi ne ko dalal dara nekk ci sa kaw lu mooy ab yonent ak ku dëggu ak ñaar ñu shahid nabiyun wa sadiqun wa shahide nabi lu mooy moom sadiq moom ba mooy Babacar ñaar ñu shahid mooy Omar ak Ali moo tax ñoom ñëpp dañ eh, boom bu mu ñëwee di jooy ne mu ne ko déglul ma dénk la ndax wér na ne maa ngi dem ci euh, sama borom gis naa léegi sama am yonent bi mu ne naa ñëw ñu bokk ndékki léegi te mënatumaa jóg fii deret ji bari na bopp bi tëj na mu ne ko bàyyi lay wax mu ne bul ànd ak ab dof dafa lay lor te fekk bëgg koo woon la bëggoon a jëriñ. mu ne ko dégg na mu ne ko bul ànd ak fenkat lu ngeen ko dinaan la ci wor ndax du wax dëgg mu ko waaw mu ne bul ànd ak naa fépp mën na laa jaay ndax njëriñam mu ne waaw mu ne bul nay fépp foo xam ne alal dafay sa gàcce wala teraanga moom du ko ko jaral ba mu waxee loolu rek loxo bi daal di dem boobu atam ñeent fukk la ci gàddaay gi bu baax mu ngi am 63 ans comme Babacar comme Omar comme Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala mbokk yi kon nag ana yan sabab yan cause. moo indi wuute ci diggante ñaari famille yi muy banu Hachim ak banu Umayyad loolu suñ ko xasee xam rek day fekk na xam nañu li indi xeex bi seen ab xëy na ndax diine la ndax politique la waaye li wóor moo di ne sot sot loola waaye politique la deret la xëccoo ci ay askan la loolu moo boolee ñaari famille yooyu ci seen maam yi ba léegi depuis Umayyad ak Hachim Umayyad muy maamu banu Umayyad Hachim muy maamu alayhi salaatu wasalaam foofa la wute ba tàmbalee ndax dañu mësoon di xëccoo meeru Makka ñu wàcc seet kan mooy nekk meeru dëkk bi bañ koy xëccoo umayata eh, boobu bëgg na loola umayata bëgg na loola Hashim itam bëggal nañ ko ko léegi nag ba ñu wotee Hashim dal di gañe dal di nangu meeru Makk léegi nag umayat dal di mer ba meree loolu mu indiwoon ñoom ñu gàddaay jógee Makk dem dëkki Syrie ci Cham ñu dëkki Soria muy Damas loolu moo koy indi woon banu Hashim mujj ñoom ñooy ñi nga xam ne tey ci Hijaaz ñoom ñooy ñi nga xam ne tey ñoo yore euh, doole ci mag banu Umayya ñoom sax ñoom ba Sham ñu nekk fa meer yore lool loolu nag euh, ay siècle siècle ci seen maam yooyu euh, bi nga xamee toog nañ bi ba Abu Sufyan Abu Jahl Abu Sufyan nekk buuru Makka nag Abu Sufyaan ibnu Harb ibnu Umayyata bi mu yoree Makka nag Abu Jahl ci xare Badar atam ñaareel ci gàddaay ga moom léegi mu nekk mag waaye ak yeneen ci feeñ ne ci Quraysh ci Banu Hashim mu Sidina alayhi salaatu wasalaam ca Makka Banu Umayyata ne duñ ko gëm duñ ko topp ba mu gën a léegi dinañ xeexal moom moom itam ba lu leen yàlla jox moo tax Abu Sufyaan bokk na ci mboolem xeex yi ñu doon bi contre yonent bi bokkoon na ca ci alalam wala ci ngànnaayam wala ci jëmm ànd naa ak Abu Lahab goro bi di bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax Abu Lahab moo doon denc Umu Jamil xam ne mooy jigéen Abu Sufyaan Euh, fexeel na yéen ci ay pexe yoo xam ne yu bari la moom borom boobu le buur bëggoon koo rey te ba borom boobu le tax yàlla tudd jabar ji jabar baayam ji ci alquran bu wane ne ëllëg euh, àllaaxira ëllëg safara lay jëm muy wamraatu xammaalatul xatab te yàlla dafa wax ne la mu fàgg woon du am du alalam du doomam du njabootam يم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ما كسب يم ياب ضرب كامتي بارك وكما دي ام جميل كون ابو سفيان يسوكو توغول لما دي صفات مكه ba yëf yëpp jeex takk takk abu sufyaan door a tuub waaye tuub bii nag ulama wu taarix dañ ne rahman fi malgré mun toll waaye moom nag yàgg naa xam ne yeneen xibaar yi ci dëgg dafa am benn bés Axnas ibnu Sharayk ak uh, Abu Jahl ak uh, uh, ibnu Xalaf ñu dajee ci digg guddi ñoom ñett ñu taxaw ba yàgg ku nekk ñu ñett rek ñoo fi nekk kenn newu fi lu ngeen xam ci Muhammad Abu Sufyaan ne xee raw xaqam dëgg la de li muy woote dëgg la de ñu ne ko lu tax na yow toppaloo ko mën a ah, am Quraysh bu fekkee ne Banu Hashim ñooy wadd kaaba bi ñooy yore Zamzam ñooy nandale ñooy dalal gan yi yeneen gi ñëw itam dem ci ñoom Quraysh muy amati lii rek de moo tax ma bañ waaye ci dëgg la nekk loolu la ba su wax fexe mu nekk fexeel na ko yeneen bi bi alquran wax ci ñoom loolu mu ci wax keroog Fatuma nag la tuub moom Abu Sufyaan ndax itam ah, li ko tax a tuub mooy pexe amut yonent ñëw na ak fukki fukki junne Madina ak li ko wër ba ñëwee ba ak si Makka ñu ne guddi na du war duñ dugg Makka guddi nañu toog ba bët set ñu toog nag junne bu nekk toog benn béréb taal ab taal di lakk la ñuy lekk ak toog gis muy fukki taal Abbas morom yi Abu Sufyaan la mooy bàyyi yonent bi Abbas daal di ñëw ci Abu Sufyaan ne ko noonu yàlla bi toskare toskare nga def mooy laa ma ne Muhammad ñëw na fukki junne nit la ñu xoolal fukki taal yi. waaw mu ne moom doo torox mu ne waaw bi ci pexe mu ne pexe kanaa ni ci dégg da ngay dem di tudd. bokk ci lislaam nga mucc boo ko defee doo mucc de doo mucc sa njaboot dara du ci mucc bu ne may dafa dem fa mu ne dama lay yóbbu ndax di jël benn baax la boo xam ne yéen moom war ko togg ci Abu Sufyaan ñuy dem mbooloo mu la mu war baax la yeneen bi naa loolu jaadu ñu bàyyi ba mu demee ca taalu juróom-ñeenteel ba ci la Umar ibn Xattaab nekk dana waay ni kooku ñu ne Abbas la moo war baax la yonent bi jëm ci yonent bi ñu ne loolu dara nekk ci Omar la déedéet am na ku mu togg kan la mu ne Abu Sufyaan noonu yàlla bi la mu ne xaaral ma jël ndigal ci yonent bi rey ko léegi jël jaaseem daw ci yonent bi ne noonu yàlla baa ngi dama bëgg nga jox ma ndigal ma rey ko yonent bi ne ko bàyyi ko mu agsi ba Abu Sufyaan agsi bu mu àggsee rek yonent bi da ko yow dafa jël ci dënnu bi ne ko Abu Sufyaan ana kañ ngay day tanu nag dellu gannaaw ci kéefar nga nekk mu ne ko léegi ndax loolu ma fi indi ashhadu an laa ilaaha illallah wa annaka rasulullah mu tuub bu mu tuubee yonent bi ko léegi suba laay ubbi mag dañ la jox teraanga Abbas nag ku bëgg àddina la nga jox ko teraanga mu ne suba ku dugg kër Abu Sufyaan mu cëng suba man daxalal daaran suriyaan fa huwa aminun man daxalal kaabata fa huwa aminun ku làq ca kaaba ga ku dugg kër Abu Sufyaan mucc mu kontaan na kon Abu Sufyaan ci waxtu woowu lay doora eh, tuub Abubakar Sadiq tam ci waxtu la bàyyi tuub Babacar moo ko womat loolu gaa ngi màggat lool ndax mu ñëw ba ci nit bi ne yow mi yàlla yónni mu mu ne ku góor gu màggat bu bon gi day moom laa yónni pour mu dugg ci diine ji ndax sopp na dee léegi mu dee bu tuubul safara lay jëm mu daal di tuub daal di wax ñaari baati seede yi yéen ci biir su ngeen demee na ngeen soppi béy jaaw bi waaye eh, na ngeen moytandiku lu ñuul maanaam bu mu ñuulal daal <laughs> ay yuroo na loolu هذا الشيء وجنبه السواد وجنبه السواد غيروا له هذا الشيء وجنبه السواد سبلن بجاكواي بمنا كمنيو وغير أبو حافظ باي أبو بكريني إيه؟ إيه؟ صديق كون معاوية كرغلتو نكنانو إيه؟ أبو سيان كرغلتو أدوم معاوية كرغلتو تجي Muawiya mu na jege yéen fi bokk ci ñi daan bind euh, euh, waxyu bi kon benn bés ñuy julli yonent bi di xutba Abu Sufyaan ci sàppe si ci kanam mais teyu ko mu ngi wax ci xelam ba wax ci kaw daal di ne wallahi laa adri bi ma garabani Muhammad lu tax Muhammad gañe ma am victoire sama kaw wallahi xaw ma ko ci kaw la ko wax ñu ngi ci jumaa ji dëkkoon ba yéen ñu wàcc ci minbar bi dóor ci bëgg bi ne billahi xalabtu ko yaa ba sufyaan ci yàlla laa jaar ba natt yaa ba sufyaan moom ne ma ngay wax ca kaw ba fatu màkk jeexe nag ñu jëm xaybar fukki junne yooyu yéen ci wéy di woon ak ñaari junne yi nekkoon màkk te tuub ñuy fukki junne ak ñaar Abu Sufyaan mbokk ji ñuy dem nag xaybar otas ba ñuy dem Xaybar Abu Sufyaan dafa jàdd laq ci garab di xool gars di ko romb di ko romb di ko romb ba yàgg Abbas morom la Abbas daal di ñëw mu daal di ne ko laqad asbaha mulku ibnu axika al-yawma aziman sa dooy bokk mi nguuram gi rëy mu ne du nguur nubuwa mu ne ko nubuwatu isa waaw kon nag kon nag donc wuute boobu mooy li nga xam ne moo doon seen diggante. d'accord. waaw fi ngeen bëggee rek ngeen ñu jël dix heures quinze jege na seen histoire ak seen wuute na mu yàggee bi ñu demee nag ba mu yetta nguur gi ñëwaat ci ñoom ndax Alioune jóge na. rural Egypt. عمرك وصلي ونكون نجاح ونسان وأبي عثمان جميع اللي تشكل الصبوب نيوخن تكناو بدري نجاية تكيب معلي مرم بنو هاشم دا تسام بلوات يا كارن يا بنو هاشم نيام كنن دقني وني بنو أميات لكن بنو أميات لكن يا رجل بودي لولا يا كارن لكن نيام كنن يكون jóg na léegi ci ñoom ah ñu ne Banu Hashim ñàkk nañ léegi Banu Umayya moo ko yore muy Muawiya ibn Abdu Sufyaan danañ ñoom ci Asan la ñu jàpp ibn Ali mooy seen mooy seen buur di topp waa Irak yëpp ni ci moom bu continuer sama par bi du baax Muawiya dafa woo Jabriya Aswad bu ñëw ndaw saa ngi tudd Jaadata bintul Ashas tey jii di tam xarit lii Assane di reeree nga def ci tooke joo xam ne bu ko lekkee dana dee dana yëkk daan daañ la takk ci waa nguur gi daañ la jox xaalis ndaw sa nangu loolu nga jigéen moom yàlla yàlla baax ci loolu xay si nga xam ne expert la والله يعني اليوم يعني يعني بيكتب يريد مثلا المال حيث عين له وشرط الشباب عنده النعجب ومننا من خبير من اكسبير قلوب الطبيب يريد مثلا المال حيث عين له وشرط الشباب عنده النعجب انا غير من بلوز حق قتل من بقيت يقول غير على القتل ñaari yooyu wallaahi lu ci góor ñàkk problème dañ koy am ci kër boo ci ñàkkee benn amoon na mu tane waaye boo ñàkkee ñaar yëpp moom waaw xanaa moom loolu lay dugg xëy sa wax moom nee na moom expert la wax xam na ñu ne ko nag kon daañu la denc daañu la jox alal loolu sa nangu togg reer reer su tam xarit def ca la mu ca xew ñu denc ko ca bakka loolu la jaagata def bintul achas mu ñëw nag ne alal ji ñu jël alal ju bari jox ko waaw léegi nag après kan kan moo may denc ñu ne denc yow nee nañ sa jëkkër maa denc ngay pare denc ma xamul ci ne jëkk jëkkër lim ni ngeen jege ak fu ngeen jaar nga attan koo rey ndax aji na ku la denc noonu ko koy la denc noonu la jaadata exécuté lañ ko waxoon ca Assane Ousseynou nag ne woon da suul ci fi ñu sol yonent bi gouverneur bi comme mu bokk ci banu Umayya mu lànk mu laal di ko yóbbu suul ko bàttee kon loolu kooku moo di Ali kii moo di kon ma ñëw eh, doomi Ali ibn Abi Talib Hachimi la Qurayshi la yaayam mooy suñu sang Fatimatu Zahra bint Rasul alayhi salaam kañ la gën bismillah Yukarıda burada şekeri var. Jadi don dia bakam kan wadi Usainu ibn Ali di wax ne mooy Ousseynou ibn Ali Ali ibn Abi Talib Hachimi la Qurayshi la yaayam mooy Fatimatu Zahra bintu Rasul alayhi salaam ana kañ la gane àddina mu ngi gane àddina ci Madina Munawwara kon ci ndaw yàlla bokkoon maanaam ca atam ñeenteel ma ca gàddaay ga bu fekkee ci juddu yonte de Isa mooy cinq cent vingt six ba mu juddoo imam Ali dafa nag ñëw na yonent bi amaan naa beneen doom bu góor de tuddee naa ko xarba xarb mooy tekki guerre la xeex yonent bi ku bëggoon xarfaan la ju baax tax na ba muy def sulxul Hudaybiya ak waa Quraysh ba ñu yebalee Suhaylu ibnu Amr mu ne kon bëgg nañ jàmm ndax Suhaylu mooy tekki ak jàppandi kon nag sa doom ji bu ko tuddee noonu ko tuddee asan mu ne ah kay mag ji asan bu tudd mu ne kon waxal asan mu ndaw mooy xuseynu tasxiiru xasan ñu jàng grammaire arab yi ñu wax naan baat boo koy xeeb tasxiir ko xarafu njëkk wa dañ koy damm fata xarafu ñaareel yokk yaa mu ñetteel nga sukkoon كان حسن صغير صغيره حسين ظالمة ما تقبالي من حرب ينبل الحسين كان ما دي أو ترى أو بابا كان أكيد جيكم نك حسين في جنگون كامون كتير لبياتي وخمون لك ku matoon ay jikko la jàng na ci ak ay fànni xam-xam yu bari rawaate na li ñu tuddee al adabul arab yi muy littérature arab ñoom xam nga wax kat soo nekkul homme nekkuloo poète nekkuloo écrivain duñ la teg fu poète moom nag ajib la woon ku mënoon a wéy la jamono jooju ku mënoon a war fas la maanaam ku am man nga war la jàng na ba jàngoon na ulumu tasawuf mi sophisme géeju woon na ci sax nag xamu ci woon lu tuuti nekkoon na référence ci ñu bari bu ñu bëggee lab ci xam-xamu tasawuf Ousseynou référence la dañ daan dellu ci moom marja la woon sophiste yu bari ci moom la ñuy sukkandiku wax ji noonu la ko àqaat benn bindkat bu mag ci Égypte noonu la ko waxee xukamaa eh, mooy chage ni ñu am ci diine seen texte yi bind ci bari dañuy sukkandiku ci Usayn di ko delloo ci moom alim la woon bu mag doomi alim la itam muy doomi ali sëtu ku mag mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mayoon na ko lamiñ wu boy wu mën a wax dafay baax ci yonent baax ci ku jiite ay taalibe baax ci ku jiite mbooloo nga mën wax lu ñuy dégg amoon na talaaqatul islam euh, ku rafetoon la bayaan ñëpp dañ ko daan yéem bu waxee ñi dundoon ak moom ci jamono xamoon nañ ci moom lool ñi liir ay téeram itam te iranien ñoo ci gën a bari li ñoom ci danga mën a xam loolu ci seen téere yooyu ku amoon fa sax la mën a balaaxa ñu di éloquence ci wax suy wax léeg-léeg mu def irtijaan nga xam ne du bind waaye léeg-léeg itam mu bind ku ñeme woon la ku généreux la maanaam ku tabe la ku tedd la ak loo ci mën a déggee tabe moom ab ragal du ni mel alal bi ko ko joxe muy dem jàmbar rek ko mun moo taxoon ku ñeme la wante ku tabe la yàlla mayoon na ko wér yaram dëgër ak bàyyam معركة الجمل بن وخن سانك اللي عليك عايشة فكينا معركة السفين اللي كانت بايم علي المعاوية فكينا قريب بريتي أفريقيا النور من شمال أفريقيا حتى قسطنطينية بنيو بيوبي وسيدي بوكنا قريب wante ana kan ana kañ lañu ko liggéey ak boobu ñaata at la amoon ibn Ali ulama yi ñu ngi ko tuddee sayyidu shuhada ñëpp ñi nga xam ne ay shuhada ay martir lañ moom mooy seen sang noonu la ko histoire tuddee sayyidu loola juróom-benn fukki at ak benn ca gàddaay ga la woon bi muy génn àddina muy 632 ci juddu Jésus yéntele Isa fukki fan la woon ci weeru Tamxarit loolu mooy histoire béréb bi mu génnoon àddina daan ci ñëw mu ngi tudd Karbala Kerbala, dëkk la boo xam ni arrondissement la mu ngi 25 capitale départementale ba Koufour vingt cinq kilomètres jamono ji muy génn àddina juróom fukki ñaar la kan moo rey ak kañ la Useyn ibn Ali ñu ngi ko shahidloo ci jamonoy benn buur ci buur yi banu Umayyata buur bi mu ngi tuddoon Yazid ibnu Muawiya ibnu Abi Sufyan kooku jamono ji mu faloo ci palam kooku ci la boom Useyn Useyn ibn Ali waa jooju jëloon capitalam def ko Dimashq mu di Cham mu Syrie waa jooju ci jamonoom la ñu ko boom moom Yezid moo joxe ndigal ne nañ ko rey santa ko ki nga xam ne mooy gouverneur ba ko nekkaloon Irak muy Ubaydillah ibnu Ziyad ibnu Abi turu day wax Ubaydillah ibnu Ziyad ibnu Abi gouverneur boobu nga xam ne xale yu góor la woon huit ans amoon ñu dénk ko région Irak yëpp waa jooju nga xam ne bàyyam mu ngi sosu politique lu bon boo ci tuggee sa lépp dañ ko wax moo ab sosuwaay bi sax dañ ko wax léeg-léeg sax buñ la bëggee xas waxaale ci lu dul dëgg moo tax mu bon moo tax ay boromi xam-xam ak i sëriñ yooyu wax nañ ko moytu ndax day tax ñu wax ci ñoom sax lu am la waa jii nag moom bàyyam dafa sosu sosuwaay boo xam ne bu bon la bàyyam kenn xamut ci wan askan la bokk Non, non, les petites règles, naturellement, mais qu'un khamoul, oui, bah. Oustaz Aqad Rabine qui térémné, Majhulul Hali wa Nasabi. Vous n'y rérez mbiram la ak askanam. Loolu moo tax bàyyam ñu koy wax Ibnu Abihi, doomi bàyyam ja. Fi bàyyam? Bay judaa ni Ibnu Zayd Ibnu Abihi. Fi bàyyam ak xar dafa bind ne gannaaw la ko Muawiya jël adopté ko ci askanu Banu Umayya loolu Muawiya Abu Sufyaan moo ko def taarix day wax Abu Sufyaan bi mu tuubagul ci jaahiliya dafa demoon na Taif mu nu jox Saqiif mu naan fa sàngara bee mandi muy wëreelu ci mbedd mi nag di wut fu mu dëngee mu yebal benn waay mu indil ko benn xale jigéen boo xam ne amul diine ma jusiya la ndaw saa ngi marjaana mu ànd ak moom marjaana moom mu ëmb ziyaad ibnu abihi ci jur Ubaydullahi mii rey Usayd kon kooku cosaanam noonu la suñ culture olof daana ko daana ko lépp olof daana lépp ne lu réer ci jikko day feeñ ci judd lu réer ci judd feeñ jikko kon ab juddoom nii la ñàkkee solo moo tax jikko ju bon jaww ji bee rey Usayd moom feeñ ci moom turkati deret la woon ku ñàkkoon éloquence la woon dafa dotam arab la waaye mënut a làkk sax arab ndax lam wi baaxuloon daawul xàmmee maxaarij xuruf du xàmmee xaa ak haa bu bëggoon a wax benn waay bu bu dëkk ñu as ko nekk ci xarur yi xarur yi lay wax bil haa yi doon al xaa ñépp di ko ree ndax ñàkk fasax kon kooku la waaye lu tax mu rey ko fal nañ ko mu nekk gouverneur te askan bi nga xam ne tey yore nguur gi moom moom bokk ci dañ ko ci yéegal kon fokk war naa def ay jaaxum yu bari ñu ne kii kan ma ngi góorgóorlu yooyu rek moo ko ci dugal ak jéem a jiñ jéem a dàqaale lënt ak gàkk boobu nekk ci kawam mu bëgg jéggi dayo itam nekk ku ñëmmasle ci saxal ne maan ci ban umayat laa bokk ku ñu bëgg bëgg naa ko bëri ko ñu bañ ma itam bañ naa ko lii moo tax mu rey benen sabab bi moo di ne mu ngi dana am yaakaar tuuti ci pal gi ñu koy fal ak nguur gi lim ci am ak alal gi ñu koy jox ak yu neex yooyu nga xam ne bakkanam bu gunn ndax Yazid ibnu Muawiya bëggoon na faagaagal bépp ngert wala askan bu aju ci yonent bi alayhi salaatu salaam bëggoon na ñu jeex mu far leen ci kaw suuf ndax li baayam Muawiya sante woon Marjaanata jabaru Asan mu liquide Asan war nañoo liquide Useynu ak ñeneen ñi caaj yi yépp nag wax na ne Asan ma ngi génn àddina ci fukki ci juróom-ñeenti fan ci weeru tamxarit Muawiya woo Marjaana jox ko cent mille dirham ah? mu ne ko denc mu ne ko denc nag moom duñ la denc moom kuy rey si jëkkër moom kenn du la denc Asan balaa moo génne àddina dénkaane woon na woon na rakk ji Useynu moom ñëw mu ne ko damaa bëggoon gis suul ma ci sama maam alayhi salaatu wasalaam bu seenu bëggee def loolu gouverneur bi fa Yezid teg ca Madina muy Marwan ibn hakam bokk ci Banu Umayya tam mu ne du am kenn du ko fi suul boobu la Husayn ibn Ali dal di jël frère am dem suli ko Baqiya kon Xasan ma ngi Baqiya fa ñu suul yaayam Fatimata fa ñu suul soxna yeneen bi ci gën a bari ci ñoom foofu la Xasan nekk Muawiya ibn Abi Sufyaan bëggoon na état amabi di ko donnante ci seen xeet bu jógee ci bàyyi dem ci doom jógee ci doom dem ci sët mooy léegi fa mu tëral yoon woowa ba ni ñi miin ko nangu ko ndax nit ñi ñaare dañuy nangu mbir boo xam ne ko miin rek mu nekk tradition di seet sax ndax dëgg lam loolu mooy teew toujours ci politique miin dara rek mu nekkoon nag day yebal la ay nit ñu dugg ci biir réew mi réew yi yépp yàlla wax na na ngeen jaayanteeg Yezid boobu Muawiya ngi dund sama doom Yezid na ngeen jaayanteeg moom mooy prince héritier bi su ma fi jógee moom na ba waa Cham Syrie ñoom ñëpp ñu nangu lool waaye waa Ijaaz nanguwuñu Hijaaz mooy boo jógee Najraan boole ci Makka ak Taif ak Jidda ak Rabe ba yéen bu wax ba Madina loolu mooy Hijaaz ak état la mooy turu histoire bi niñ koy wooyee léegi Saudiya duwul aw tur ndax itam Abdul nga xam ne ay ceet lañ woon ñu jógee ca Tihamata ca côté Riyad nekk ay guerrier di xeex ba shérif yi nga xam ne ñoo doon falu ca Arabie Saoudite ñu rey shérif yooyu ñoom saoudien yi ahlu saoud daal di leen remplacer ut benn iliman borom xam-xam bu mag muy Mouhamad ibn Abdul Wahab دفق سين إيمان لولو فرنجلي وحبزم نعني نجن لن ندو يمناق جزر جاني تحول فسين إتا وقمور الملك عبد الله جناو ملك حسين لكن دمو حسين مو نكل زر جاني إتا بوبو نمو تدون حجاز بنا نلقي نلقي tuddee ko seen maam Saoudia Saoud xam nga loolu du tur tur la am askane ko aw going to la mais Hijaz la réew ma tudd Hijaz mooy frontière u Syrie ba frontière yi Yemen loolu moo di Hijaz wër na ci Hijaz yépp nag pour ñu jaayante ak doomam Yazid mu nekk prince héritier ëllëg muy waliul aadi mu daal di ne gouverneur bi nekk Madina muy Marwaan loolu nañ ko doxal ci Madina na ñëpp jaayante signé nangu ne Yezid mooy prince héritier bi jógal loola na am Marwaan taxel ca mbir ndax itam e nag naa fi nekk soo fi jógee suma doom nekk fi ma doon bokk ci bokk ci génne bi mooy bëggal la boppam mu lànk ne loolu du ko doxal ñu daal ko ah moom nag moo bañ la woon waa dëkk bi yëpp mu aw yi dégg loolu ñu folli Marwan ci Madina daal dafa yóbbu Saïd ibn al al Amawi kooku itam jéem na lu mu mën pour convaincre waa Madina ci loola sottiwul magu saxaaba yëpp bañ ku mu ne Abdullah ibn Abbas ku mu ne Abdullah ibn Zubayr ku mu ne Abdullah ibn Abi Jaafar ku mu ne Usayn ibn Ali ñoom ñëpp ñu lànk ne ñoom duñu signé loolu moom gërëm mu bind Muawiya benn lettre adressé ko ci Saïd ñu gërëm bi ci Madina ne ko Muawiya ne ko defal ndànk na na nga def ndànk ñu koy jaarale ci politique ak mu daarante ba ñu nangu ko waaye bu force defal ndànk nag ci waa Madina rawatina Ousseynou def ci ndànk de. fexeel ba Ousseynou daal lu bon bu mu ko dal jógee ci yow lii la Muawiya wax gouverneur ndax mu ne Ousseynou am na ak jege ci deret ci alayhi salaatu wasalaam ak Quraysh boo xam ne soo ko du baax ci yow ku rëy la ku ñu fonk la ci woowu askan jirit bu góor du ko weddi bu jigéen du ko weddi loolu benn beneen bi moo ci ne Ousseynou Gaynde la bu ko song mu de boo ko songee daal doo ko daan lii la Muawiya wax gouverneur bi ne ko Ousseynou de Muawiya def bee برامو دیم وردم جی یزید نپی اولی جو خلاف جی وای رفتن کیو دا یزید نکتون کو کم پولیتیک تمانی کردون معاوية نانا يزيد كي يولو المعاوية نانا مدينة أغمك بلغة لما ينيم على تدر ñii defal ci ñoom ndànk Ousseynou ibn Ali defal ndànk ci moom Abdullah ibn Abbas defal ci moom ndànk Abdullah ibn Zubair doy bàjjanam la defal ci moom ndànk waaye Abdullah ibn Omar moom ah moom taalibe la ab seen la rek moom mooy limaan jàkk ja mooy moom daal jàkk ja rek ci la féete kooku moom ونأكل كوكرا وقال زي عمر بن الخطاب ورجل الدين وعبادة من أبو بيسد كان لما يورك دنا نقول نجا أنت يوم وانت أسيد بن علي مين من معاوية ياكار وممكن نوا إيران دنا نلقوا بايه ياكار نوا إيران دنا نلقوا بايه suñ ko génnee nag ba mu sori ay bokkam ci Makka ak Medina ak Hijaaz jëm Irak dootul am doole ndax génn su boobaa boo ko daan boo ko dogalee nga jàpp ko la nga ëpp ko doole ay doom bu ko rey de bu ko rey dafa am ak bokk gu laal Quraysh yëpp te muy doomu alayhi salaatu wasalaam xaqan te loolu musiba mën na la ceedal loolu mooy wus ama Abdoulaye ibn Zubair dama bàjjen bi nag kooku moom jaar la wala mbëtt la mbëtt mu nekk ci toj falam ñaari pax lay am boo ko bëggee sakk mu génne fële bëri pexe kooku boo amee occasion ba jàpp wagonga ngerai korban badda kepka begitu. Bawa jappe nak jam mu jamu jammo ngeen def jam nangul lool taxe wattandikul derete quraish di tuub loo mën ya, lii la muawiya wax dal di dee muawiya dee na dénk na doom yesit loolu doom atam juróom benn fukk ci gàddaay gi xale baa ngi am trente cinq ans fanweeri at juróom amul benn expérience ci politique amul ay conseil yu lu neex bakkan bi daal ak sàngara ci la nekk Yazid dal di bind gouverneur de Medina muy Walid ibnu Utbata ibnu Abi Sufyan kooku kooku xam nga cousin bi direct mu bind ko lettre de ko léegi day maa fi nekk jógal nga jël kayit nga dem ci Ousseynou ak Abdoulaye ibn Omar Abdoulaye ibn Abbas ngeen euh, di dëkk bi nga ne jaayante ak man ne maa fi nekk xuzhum axzan shadidan laysa fii ruxsa Bulan may bind permission. May singing yum, yep, yep, yep. Hatta yubayuku vesselam. Letter bana. Yazid ile bin de görünür bir. Hud Hüseyin'in Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas bin bayati akıdan şediden leysa fiyha ruhsa hatta yubayuku. كنا خدشوا في نعرف بنو هاشم ak banu umayya yàgg na al-Maqrizi génne na ko ci ñaari bayt nee na abdu shamsin qad adramat li bani hashimin xarban yusibu minha alwalidu وابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد من سين أسكن يقنا يوتي عبد الشمس seen mag ci Umayya moo Hachim ñoo doon defante ba kooku gañe ko ci mag ker nañu ay xeex xam ne bu ne ci juddu woon sax boo moytu dinañu teel a béjjal ndax tiit Ibnu Harbin muy Abu Sufyaan Ibnu Harb moom moo jamonoon ci ak yeneen ci bi xeex bu ne Ibnu Hindin muy Muawiya doomu Hind kooku la arab yi bindoon xaste moom araba bu fi dafa ñëw ten dafa bind ne xikam ci ñett la am ci làkku arab ak ak yóoru français ak loxoy chinois bu ña nañ ko xalaat bu ne baal français yi xalaat bu dee nañ ko bind expression mu ne jëlal arab dañ ko liggéey yoxal chinois yi seen loxoy du nekk lañ doon ودي على الحكمة في السلاسل في مخ الفرنسيين وألسنة العرب وأيدي الصينيين مدادين يكون ابن حرب مدي معاوية mi ngi jëli Ibnu Hind Ibnu Hind mii benn arab la sa ko bind loo xam ne du fàttewu ba muy dee daf na koy yëpp na aakilatin akbar ee eh, yow doomi ki daan lekk rek si doomu aadama yi mën a kasu ko wax na dëkk bi ndax xare bu Uhud ba Hamsatu daanoo Hind moom moo ñëw dagg nopp مقتي بدي تقبك لي أكتي خطي قلبي كنا رسمي سحكو ييكو بكي من يقونكو منكي لدي تفسر سباينكو موتاخ عربي ديكو بنان يبنى آكلة أكبر يو دومي كنان لك رسينيني نون لنكو يقصي وكو معاوية ابن أبو سفيان وابن هند moom moo jam jamononteeg Alioune ba ñu xeex bu yonent bi jaamaarloo ak Abu Sufyaan naka noonu Alioune jaamarloo ak Maawiya kon doomi Ali Hussein moo jaamarloo ak Yazid ibn Muawiya loolay wam nu xarbin lil Mustafa wam nu hindin li Aliyin wa lil Hussein Yazidu waaw Xuseyn ibn Ali sëm nañu ko faaga gën a gudd waaye yitte na ci histoire l' islam histoire yi gën a réy ci l'islam ci la bokk dinaa ko jéem a tënk ci ay sattre pour bañ nga fàtte waa Iraq ñëw bi ndaayilaati Xuseyn ibn Ali ne ko ñoom lay woo nga ñëw kuufa ci Irak ñu ndey ban gisatu sa baay ak sa maam yow la ñuy déglu yow la ñuy topp mën naa la wax sax ñi bindoon lettre ya nga xam ne histoire du leen fàtte mu ku naan Siise ibnu Rabia ku naan Hajar ibnu Abha Qays ibnu Lasas Yazid ibn al-Xaaris Amru ibn al-Xajjaaj ñii ñoo bind lettre ne ko soo ñëwut jiitee julit ñi bu nu réeree ëllëg daañ la kalaame ci sa kanam maam ne yaa fi nekkoon bii nit ñi dëng te ñëwoon jubbante ñu te ñun yow rek la ñuy di métti mu dal ñëw ci bàyyi taxam muy Abdullah ibn Abbas ne ko papa man waaye daal dañ ma bindaay lettre bi maa ak man ma jiite leen ci yàlla Abdoulaye ibn Abbas ne ko bul dem doom ay warkat lañ leen topp ba léegi noonu la baax bu fa ñëw ñu war la toogal fii ci Hijaz yow yaay sanguwaat jas yëpp boo toogee su fekkee mënuloo ñàkk dem fokk daa génn jëmal yaman yaman sa baay Ali na fa ay dongo ak ay partenaire yu ko gëm te yaman ay tataan fa yoo xam ne ay buuru ko fa tabaxoon daa ci mën a dëkk Ousseynou ne ko yow bàyyi xam naa ne ku baax nga ku ma lay biir nga ku ma yërëm waaye nan naka lay defal lettre yowmal qiyaamati yow lañ bëggoon a jiital soo ñëwut daañ kalaame ci sa maam yowmal qiyaama ne yaa yaa fi di ñu nu may def ak loolu bàyyi doog naa fokk dinaa dem dinaa dem Irak naa jooy jooy jooy jooy metti ndax xam na la koy xaar ba yàgg mu ne ko yem na la in kunta laa budda faa'ilan فلا تخرج احدا من ولدك ولا حرمك ولا النساء ولا احدا من الاسره ايو سون دومو ما bu fekkee mënuloo ñàkk dem bul bul yóbbu kenn ci say doom sa benn doom bu mu soxna bu mu dem sa jigéen yi sa sër bu kenn dem famille bi baal ñëpp ak man bu ci yóbbu kenn damaa ragal ni di la rey ci kanam sa famille ñoom ñëpp ñu dem ak loolu li ñu reyoon ci kanam ak jabaram ak i bokkam loolu lii laa ragal ci Irak eh Abdoulaye ibn Abbas ngant la woon xamoon na ci noonu Ousseynou damay génn maa ngi xam naa ne yaay sama yàlla na ci man lool ndax yaa ma gën a gën xam waaye daal ak seeni juróom-ñetti fan ci weeru tabaski yi mu yatam juróom-benn fukk ci gàddaay bi ci la wax ne dogu naa tey lay xëy وانت دم يوني سما دم بيت ربي مي مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ما كيجر بين بس أخي يوني كم جيت من إيران سدم مكمل لين ما نيو بخل بين لا تربي قال لك جاء مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب ما يكون كنيران كبدر موت علي لون اك حمزه دوم جي دي مسلمنا مام لو سيدي جوخ لتر بي نكو دمال با كوفا خبار يي ماي ديك ني نغ ماي خار اك مان لا نوي نيك اك مان لا ني فارال nga xam xibaar yi ndax dëgg la nga gaaw dellu si wala nga yónnee ma ba taaxel ma xam lu xew mu daal di gaaw a dem ba wàcc kuuf waaye keroog mu wàcc kuuf bu mu demee ci jàkk ji daal ne man maay Muslim ibnu Aqil ibn Abi Talib Ousseynou eh, moom ci li lettre yi ngeen ko bindoon keroog dix-huit mille nit ñëpp ñoo ñëw jaayanteeg moom dix-huit mille fukki junne ak juróom ñoo ñëw jaayanteeg moom ci turu Ousseyn <coughs> ah ba la xewee nag Nu'man ibnu Bachir moo doon gouverneur yi Kuufa ker xibaar yi dem ca Cham ci Yezid ne ko Ousseynu kat yebal na fii benn cousin ci waa Irak Kuufa di ko jaayante nañu ak moom yësit ne nga mu ne ñu ne ko mu ne boobu gënoon fali naa ko normal na fa dafa sàggan booba nag la ne naa indi kii nga xam ne amul askan te dañ koy yëgal ci suñu askan ma def ko fa gouverneur muy Ubaydullah ibnu Ziyad ibnu Abi dooy bàyyam jooju kooku ba mu demee rek commencé dajale nit ñi ne leen jël ay xale ne leen na ngeen recensé dëkk bi tur yi yëpp ku fi dëkkul danañ ko xam jël nag ay kayit di recensé dëkk bi diw diw diw ba ñu bindee ba recensé ñëpp nag ba binde leen ñu daal dina am na koo xam ne dëkku fii muy muslim ibnu aqil ibnu abi talib ñu ne kooku lañ dëggoon ñu ne kooku day la fi Ousseynou yebal muslim na àqil ba mu déggee loolu mu xam ne pexe bi yàqu na xam ne waa Irak war nañ mu bindaat benn bataaxel Ousseynou di ko xamal ne bul dikk pexe mi yàqu na man mii sax ndax sama bakkan dina sowe wóoruma waaye yow moom bul ñëw pexe bi yàqu na ba mu bindee boobu lettre yónnee ko lettre ba balaa muy àgg na ko seen poste yi seen lettre yi dafa doyoon benn gëlëm dañuy war wala aw fas balaa lettre ba àgg fekk Ousseynou départ na génn na dëkk jotu ca kon am na lu yàlla dogal ci moom moom muslim jàkk ji mu doon jullee yëgul lu mooy police bi encerclé jàkk ji fa la daan jullee di xutba di leen waar julli na tàkkusaan ak mbooloo juróomi téeméer a des ca ma la waxoon juróomi téeméer cinq cent la moo fi des Неплорный бадемна. Далеги гудин. Мунек фабе julligee ba mu julligee jiite ba mu sëlmalee geesoo trente personnes moo fa des gaa yi dem war nañ bu yàgg trente personnes yooyu ba ñuy sëlmalee rek ci lëndëm gi mu geesu far gisatu kenn moom rek ci jàkk ji jiw sax ku koy tegtal kër njaatigéem fan la fan la far du am kenn ku muy àndal amul muslim daal di jaaxle foofu nag nekk police baa ngi war a jàkk ji commissaire daal di yuuxu ne bu génn jàkk ji jàpp leen ko balaa moo raw ci diir bu gàtt ñu daan koy jàpp mu xeex ñoom ba ñu blessé ko jàpp muslim da doon defanteeg alkaati yi ñu yóbbu ci benn teeraat ca kaw yéegal ko ci kaw a kaw a kaw ndax ñëpp gis ko bañ ko yéegalee ca kaw ba ñëpp gis ko ñu daal di cor baat bi mu dee ndax ñëpp gis ko ñu na ku ku ànd ci ak Ousseynou nii lañ lay def ñu daal di jël bopp bi yónnee ko Yézid ci Dimashq ak bopp yi ñëpp ñi ko doon aar ak njaatigi yaag ñi ko dalaloon ak ñëpp ñu rey leen jël seen bopp yi boole ko am mbokk yónnee ko Yézid ca Dimashq ñooña bokkoon na ca ku ñaan Haani ca la bokkoon Haani ca la bokkoon kon muslim ibn aqil ñu ngi ko rey ci juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski te Ousseynou ngi génn juróom-ñetti fan ci weer kon xamul ne rey nañu cousin bi mu yebaloon mu ngi ko mu agsee ci réew ci suuf si Irak Ousseynou bind benn lettre di ko yónnee jox ku ñaan Qays ibnu Sahr as-Saydallawi ne ko ay sa boo demee yëgalal waa Irak ne ak Sinaa ci réewu Irak ak Sinaa ci suuf si dem ba fu ñu naan Qadisiya mu dajeeg police ba ñu jàpp police yi Ibnu Ziyad ba ñu ngi ko arrêté ca Qadisiya jàpp yéegal ko ca taaxam kaw rey ko cor bopp bi ñëpp ay balaa ñu ko rey la dañ ne ko yaa ci kaw terrasse bi waxal ci sa làmmiñ saagal Ousseynou saagal Baye Mali xas leen nga wax ne defuñu dara te nga ne nit ñi bu leen kenn topp buñ lee bu leen ay sa dal di yéeg ne eh, nit ñi Ousseynou Ibn Ali de muy ci gën ci mbindeef yi doom yi ki gën ci mbindeef yi yàlla yi day Fatima tax yonent bi alayhi salaam man la yónni woon ci yéen maa ngi tax teqali ko moom ci xaajis daf woo ci yàlla wuy si leen ko na ngeen rëbb nag ak saaga Ubaydullah ibnu Ziyaad ak bàyyam ak maamam ba mu waxee bu gaa yi jël ay xeer sànni ko ci kaw ay xeer jóor ko ay xeer ak i fett ba ñu rey ko xibaar boobu ak si ci Ousseynou xol bi gën a tàng mu daal di nit ñi mu àndal kenn man mu ñeeku ba am ñu bari ñaanu nag moom ne wëññeeku ne tuutee fa des ci partenaire ak ahlu bayti waaye fekk banu aqil ndax musulmi na aqil rey nañu donc ba ba ñu àq yépp ni ñoom nag ñoom duñ dellu mukk mukk mukk mukk il faut ñu fayul muslim na aqil ma ñu rey wala la la ko dal dal ñu def fa waaye du mu nekk mukk ñu dañuy rek arab moom fayu rek la mën ñu ne ñun daal aqsamu an laa yarji'u hattaa yudrikuu sa'alahum ويذوق أو يذوق ما ذاق مسلم عاقل kon mbooloo su tuuti moo des ak Ousseynou léegi nag ñi nga xam ne ñooy soldaaru Ubaydullah ibn Zayd ibn Abi ñoom it génn nañu bëgg a dajeeg Ousseynou balaa muy agsi ñu nga dajee ci benn montagne bu tudd si xas yi ñoom mën nañ mille personnes kiren leen jiite woon mooy Harb ibn Yazid moo jiite soldat yooyu julli jot Ousseynou nee nañ nodd ñu nodd Ousseynou ne har yow la ñuy yebal pour nga dal sama kaw mu ne ko am léegi julli jot na nodd ben benn nga jiite sa mbooloo ma jiite sama mbooloo wala nako ko gisee mu ne nañ ñëpp ay jullit nañ boole mbooloo mi yow Ousseynou yaa leen di jiite ñu boole mbooloo mi Ousseynou jiite taxul jàmm am de ba julee tisbaar ba pare nag Ousseynou daal di waraat ña ko topp topp ko ñu ngi jëm Kuufa gabari Ubaydillah ñu ngi ko séq ndeyjoor ak càmmoñ laaluñ ko waaye ñu ngi ko séq rek mais ni ku ñu autorisé ngay manifester ñu bañ nga laal dara ñu topp ko rek ci ndey jor ak ah, fu mu jëm ni jëm fa ndax jàpp ko dañ bëgg muy dund Ousseynou dem ba yàgg mu wàcc ci benn dëkk bu ñu naan Ninuwa mooy fa jinne ya nekkoon ak Suleymaan bu wàccee Ninuwa kenn ki ñuy topp ci Ousseynou ku tudd Zuhayr ibnul Qayr ñëw ci Ousseynou ne ko yëpp na rasulillah hmm. alaa nawaajimuhum nit ñi toppee yàgg bi tey bi njëkk leen song rek lu nu am rek jël balaa seenub li mu yokk Ousseynou ne ko inni akrahu an abdaw bi abdawhum bil qitaal bañ naa fekk xeex bi ak tur deret fekk maa ko njëkk ñu daal di mu ñetti Ibnu Ziyaad di yónnee waat 4000 soldats renfort jëm ki naan amri ibnu saad ibnu abi waqas moo leen jiite kooka bu mu jógee mu dajeeg ibnu muhirata ibnu shaaba Koko doomi bàjjanam la ñu taseeg moom mu ne ko foo jëm mu ne man kat góornal bi moo jox ñeenti junne soldat ñu dogaale ji Ousseyn mu ne maa ngi lay bi bu la xeex ak Ousseynou bul dem mukk mukk bu yeboon ñu rey hmm. maa ngi lay gëlëm nga génn àddina yaag sa alal ak pal gi ñu defal nga ñàkk ko moo gën ci yow ngay dajeeg yàlla ëllëg fekk sa loxo yaa ngi taqat deret Ousseynou wax ja fanaan fa muy Amr ibnu Saad ba ëllëg sa mu dem ci église Zeyat na ko yónnil keneen man mënumaa dem ci Ousseyn ma kenn ci kànga bi koo fay waaye man du ma dem mu wër wër kan mooy dem gannaaw ga mu tànn ku ñaan Saade ibn Abdurahman al Maqri kooku moo jóg ak ñeenti junni soldaar ya daal di fekk Ousseynou ca dëkk bu ñu naan Karbala am na fa benn déeg bu ñu Taf booba juróom-ñetti la weeru tam sanee ci gàddaay Ousseynou keroog ba mu ñëwee bee Karbala mu nekk diggante bi noonam ibnu Zayd ak bi mu njëkkoon indi ak na Sammar ibnu Dil Juushan ñaar yëpp ku ci nekk soxor ak sa bon ak morom ku ci nekk naan ci gaba Sammar ibnu Juushan benn waay la woon bu jiboon waaye bu ñaaw bind seen sonn na ci boppe tan do jeex mu muy di ba ndox neex so soldat yi ñu fa moo naan mu daan jël doomam bu jigéen wala do mu goor fala awale bu abdal mu ngi mar bay ngaan ak ñet te do ngeen ne bu daal yéen ci bi seen yalla bi yëkk ci ko ne illah fi tafli in lam tattaqu la fina su ngeen ragalul yàlla ci noonu ragaleen yàlla ci jaamu yàlla bii nga xam ne gune la di moom xamul dara marwaan koy rey ngeen bàyyi ko na benn boo xam ni dafa ŋaat settam rek ne ko ci doom ji jëf ne ko xuzha wasqiya jëlal sett gi nga nand ko ba dee mu ne bëgg nañu dégg ne moom moo njëkk sett ndax bu ndax mu am ci garab ci biir la ko jam buti yi génn bu ne gi dee Ousseynou ma ngi gën a mar ma ngi jegee dexu furaat waaye ba tiim na dex gi mu ne léegi day wàcc moom ci boppam mu naan ci dex gi benn ñaan Ousseynou ibnu Numaay Ousseynou sa da liggéey sam da sett Ousseynou jam ko ci lex bën na ko liggéey yëpp fees ak deret waaye ñi mel woon mu jël fett gi xëcc ko ak bari génne muy na ci بربيات من يا رب إن تكون حسن النصر من السماء فجعل ذلك لما هو خير منه سفك كان دوار نبل دنكاتك أسمان بدنيو كي ين يلا كبتني waaye su boobaa yàlla maa ngi ñaan intaqim lana min al qawmi zalim yal nañu fayu ëllëg mu daal di wax allahu akbar allahu akbar dimbali yaa ko ci jaar yàlla fekkoon ci ñun te ka fayam ñu nag ci benn jot a poussé day tey rek yére mu doon wax ca maamam muy bu yeneen bi sa salaam xëy daan di sol bu bu yeneen bi gën jaas yeneen bi gat boo jël maanaam bu jur ga nem ca euh, xanda kaala woo ko daan di làmbaayu euh, noonu ba ne ah kii dafa nar wax discours la nar a jox na bu bu yeneen ci gàtt na seen jë wax te wax rek la man su waxee wallahi dinañu walbati xol yi ba ñëpp danañu ànd ak moom ci xutba ñu ne ñuy def ñu ne nañuy yuuxu rek ba kenn du ko dégg nañu yuux fii yuux fii waaye buñ koy déglu ñëpp danañ walbatiku ànd ak moom nañu yuuxu xataa laa yusmaa qawluhu waaye aussi nag quand même góor-góorlu na ba wax comme sant yàlla julli ci yonent bi daf ne askan leen ma man maay kan man may kan ey nit ñi yëllit yàlla yi man maay kan ndax dagan na ngeen rey ma ndax dagan na ci yéen ngeen xotti sama orma ndax man nekkuma doomu seen yenente bi xanaa wax sama maam li mu waxoon ak siwut ci yéen ñu ne man ak sama frère Assane ñoom ñooy sangu ndawi aljanna yi tos ngeen la de moo tax damaa reyoon ci yéen kenn ngeen bëgg a fay ndax damaa jëloon seen alal ngeen bëgg kaa nangu lan ngeen bëgg ci man bu wër ma bëgg maa rey discours bu doy waar mu daal dina yéen ñëw bi na lettre naa leen wuy si nag yéen lay waxe yéenoo bindaay lettre yaa ngi nii yéen ñoo ñu nag dama leen tudd fii ba leen wooyee ana diw ana diw ana diw ana diw ñu bari ca xare te bokkoon ca walbatiku féeti seen Ousseynou dal di génne ci bale boor ne bokkatuñu mu continuer rek di dajeeg ñoom jëkka ci des Harri ibn Yazid mu jën a daw ñëw ànd ak dal di ne maa ngi ñaan nga nangul ma ngant dama yaakaaroon ne dañuy def si yow waaye kenn waxuma woon ne dañ lay rey si man loolu bokk ci te ci magu soldat yi la bokkoon su ma xamoon ne dañ laa bëgg rey mbiri balaa moo agsi fii dana am lu mu def lu ma def foofu nag Amru ibnu Saad moo njëkk sànni génn fett ci kaw asamaan si ne seede leen ma ca buur ba ne bën jàkkaaroo Ousseynou maa tàmbali xeex ndax maa ngi ko fett ci kaw donc yàlla taxul loolu moo taxoon mu wax loola corps à corps ba tàmbali na diggante Ousseynou ak ñu néew ñu ànd ak moom ak xarit Ubaydullah ibn Ziyad ibn Abi boobu Ousseynou ma ngi desee juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ñoo xam ne dañuy dox waruñu ak fanweer ak ñaar yoo xam ne ñu ngi war ci fas ak ñeen fukk yoo xam ne ñu ngi war ci ay jëlëm kon ñeen fukk fanweer ak ñaar juróom ñaar fukk ak ñaar muy xare ba ñu songoo seen ñi ko sang ñeenti njulli lañu ñoom ñëpp ñu ngi war ci amee ngànnaay ba ñu amee nag ne xare bi bu ñu defee corps à corps def làng ñett génn ñett génn ñu defante kon Ousseyn la leen jeexal ndax ku mën jaasi ñu ne loolu du baax loolu du baax bu ñu def corps ci anam boobu ndax ñii ñoo gën a siiw ci arab ak jëm ci kàttan ak mën a muy ay jëm jëm ak mën jaasi ak i fett am ru ñu saat ne nit ñi bu leen def mubaarasa du baax ñu ne la ñuy def mooy ñu toog fii jël ay xeer di leen ko sànni ak di leen fett ay fett yu jógee fu nekk ñu tàmbali loolu sa sànni nañu xare bu Seynu bi ay fett ki xeer ñëw nañ ci gëlëmu Useynu dagg siis gi ta ñaari tànk gëlëm gi toog mënatul jóg jam nañu jàmbaar yi mu àndoon ak tey ci góor yi yëpp foofu nag ku ñaan Yazid ibnu Ziyad al-Kindi daal lii daal du baax xaaral ma ñëw ànd ak Ousseynou dimbale ko ndax lii di jëm fu baax ndax lii ngàlleeku fa lay ñëw moom jot naa rey téeméeri nit ca ñeneen ñu door koo na ci kanam Ousseyn naka noonu bi naan naajee mi hilalul bajjat yi mu tëbee ca noon ya daw ñëw ànd ak Ousseynou xeex ba rey fukki nit ak ñaar ñu door ko rey foofu Ibnu Ziyaad dal di ñëw mu ñëwee mu ne lakk leen bi ndax jigéen ñi mu àndal ñu nekk ci xayma bi lakk leen seen kaw ndax ñu génn ñu daal di ko lakk jigéen yëpp génn amuñ fu ñu nekk ku seenee bàyyi leen ñu lakk ko rek ndax du ngeen ci mën dara ku seen waxtu wu ñu reyee ku cher ci moom daf koy jël yëkkati ko képp ko ci benn béréb daal di ne dund amatul njëriñ laa xayra fi lxayaati baada yow mii ñu rey fii

mu daal di walbatiku ci xale lu góor boobu dagg baat bi muy Abdullah ibn Hasan foofa la des Ousseynou des na nag doomu magam yi rey nañu ko doomu eh, bay taxam yi rey nañu leen mu continué di xeex daanaka ñu rey mboolem ñu ànd ak moom muy xeex rek ndeyjoor ak càmmoñ du ragal du leen dellu gannaaw ba yàgg Samar ibnu dil Juusan dal yuuxu ci xare bi ne waaw lu kenn ngeen ñëpp bëgg leen a jeexal ku ñu Zaraat ibnu Sharik Tamimi moom moo jege si ñëw songu Useynu dagg loxo loxo càmmoñ bi keneen ñëw caw ko jaasi ci doq gi mu dal di daanu mm. xare bi dal ku dikk ku nekk ni danaa ci barkeelu jam ko ak fett wala jaasi ndax buñ demee ñu wax ko yisi nii lañu ko dëbbee ba fekk nañu koor bi cent vingt jam-jam jaasi ak i fett mu ngi ci yaram Useyn ibn Ali nii lañu ko faagagalee moom mboolem ku bokkoon ci famu yeneen bi bu tedd bi ku fa desoon te deewul mooy Suwayda ibnu abil mutaa waaye dañ ko jàmm tëdd waaye ci lim toogee ak jaasem ji daf na du toog noonu lay raamee ku mu gis ci gaañi xeex bare yu bare bañ jekk ñu ko bon di Chamar ibnu Juusan a ñëw nag ci ndigal Ziyaad ibnu Abi moom moo ñëw dagg boppi Useyn gannaaw bu mu dee ana kan ni moo des ci famille yeneen ak ci doomi Useyn ak ci doomi Asan ak ci famille yeneen ku ci des Ali ibnul Xuseyn rek moom lañu ñu reyul moom la ñu mujj tuddee Zeynul Abidin kooku rek ci des ak Zeynabu bintu Ali ibn Abi Talib kooku frère Useyn la ak Fatimata bintul Xuseyn doomi Useyn la ñii ñoo ci des ñetti jigéen ñi ak benn gune bu góor gii nga xam ne mooy mooy Ali te dafa feer foofu nag fu la Zeynab bu yëkkati ay loxoom ne waa Muhammada ay yonent bi maa ngi lay woo Ousseynou ngi nii ma ngi bi rey nañ ñun sa doom yi jigéen yi ñu ngi nii amuñu bergenne amuñu fu ñu jëm amuñu càmmiñ amuñu jëkkër amuñu ku ñu yoree yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàpp nañu ñu ngi jëmee ci ak njaam jëlee ñu ci waaji soxla jooju ee yow yàlla ee yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa jabar gaa ngi nii di tumurak lii la Zeynab wax noonu la mbir ma daal di jeexee léegi ma ñëw ci yaramu Ousseynou suul nañ ko kóofu ana bopp Ousseynou fu mu ne boppi Ousseynou fan nañ ko suul bindkat yi ci histoire dañ cee wuute juróom-benni version moo ci am bi jëkk mooy waa Hijaaz waa Makka dañoo wax ne jëloon nañ bopp ba yónnee ko Damas Amru ibnu Saad ibnul As gouverneur Madina mun a war moom moo jël bopp ba suul ko ca Baqiya ca xam riyaayam Fatimat kooku mooy version waa Hijaaz bi dëkk ne déedéet bopp ba Ousseynou bopp bi Yezid a ko dencoon ca Damas ci benn armoire ba Yezid dee nag nit ñi jël bopp ba suul Babul fradis. ba léegi boo demee ci jaamel amu ci bunt bi dañ li way gis dañ la woon xabru yaxya ak bopp bi Useynu ñu lu werte ñu ne fii nekk ci jameel amu yi kooku waa Syrie loolu mooy seen version am na ñeneen ñu wax ne bopp bi Useynu ñu ngi ko suul ci fi naan Asqalaan ci Damas maanaam ci Jérusalem ci Palestine ñu ne dañ ko ak Damas waaye ñu ngi ko suul ñooñu waa Palestine loolu lañu wax ak waa Jordanie am na ñu ne déedéet bopp bi ñu ngi ko suul ca Jérusalem ci maytul euh, solo boobu égyptiens yi ñoo ko wax ñu ne français yi guerre bi ñu doon def tuddee ko xarbu salibiya ñu ne ci guerre boobu leen ba français yi noté fàttali yoon yi ñu ne booba dañuy ñëw jël trente mille dirham dal di ko neexale état bi ñu may leen ni toxalee bopp bi foofale yóbbu ko ci Caire muy Égypte ci capitale bi boo demee ba léegi Caire am na masjidul Hussein ñu ne foofu lañ ko suuf ca xaalul xalil loolu cinq cent quarante neuf hijriya la maanaam gannaaw quatre cent quatre-vingt-huit ci ay at mu dee moom Ousseynou gannaaw quatre siècle loolu mille cent vingt la woon juddu Isa verset juróomeel bi dañ leen jox bopp ba ko suul delloo si nañ ko Irak ko ak yaram wa ca Kuufa ndax dañu ko eh, ña ko gardé woon bu guddee dañuy gént am lu leen di ñu daw daal di génnee bopp ba delloo si ko ba Karbala delloo si ko foofale boole ko yaram bi suulaat ko foofu version bi ci mujj ci Ibnu Juzi al Iraqi Kabir moo ko wax تتيرم نعم ان زينيان كسو تيرا تبير بنام هدقا مغيتي واتي دي ان فمدن بغنان دنان أستاذ محمود عقاد نينا نيان كسول تي إجبت تي كير جوجو أحمد السيون إمام الشعراء يقول الله وحكي تيرم في الطبقات الأولية سيع الحراوي وحنا في التيرم بنام الشادات ila ak amakini ziyarat wax joojooyu marocain bi ibnul batuta ki daan wër di wër histoire moom itam loolu la bind wala wax wante gannaaw ba ñu defee usani nii ak ahlul bayt ma ci daan teg rek mooy ñun comme ay tuubén la bu tam xarit jotee dañuy rey ay nag ñu wuti ñu wuti cere waaye dañoo xamul rek maanaam juróom-ñeenti fan ci tamxarit ñu rey Ousseynou fukki fan ci weeru tey tamxarit ñu rey Ousseynou banu Umayata seen capital baa ngi ca Damas ñi daal di xëy ñi wari fas ñi wari baax la ñi war berkelle ñi war ay mbaam ñu yore ay jóololi ak i walla walla di yuuxu di pétaar naan jeexal nañu famille yenent bi ci kaw suuf ñun ñun xamul dara ñu koy feetu di rëy nag loolu léegi lan la ñuy feet famille yonent bi jeex ci kaw loolu dañ ko feet mooy tam xarit mooy tam xarit cere yooyu ñu def de loolu mooy cosaan ba nu umayata boobu ñu nekk ci nguur ñu décrété ko def ko feet bi mu jotee mu mbéy mu nekk daal ci def waaye parce que su beneen xamuñu dara moo tax wante ginnaaw loolu ay révolution amat gannaaw ba ñu war a fayee ko Ousseynou muy Amr ibn Saad ak ak mboolem waa am ngi yónni waa Hijaaz mujj nañu jóg dal ci waa Irak képp ku defoon bon ci Ousseynou ñu jàppal képp ku ko soxore woon Muslim ibn Uqbata al-Mari moom ñu lakk tëral ci kawam naka noonu ñu jàpp ku ñu naan xaalis tuur ay deretam ak ak njabootam rey na ñoom lu mat junni ak juróomi téeméeri jëm mi mille sept cent ci muhaajiroon lan saar leer nañ ko ci xare yoon gannaaw fukki junni yooyu mu jox defee dafa war a ci mu rey leen di def taxarib di dem ba xibaar ba agsee ba ma dem mën a war ah, ba xibaar ba agsee nag ñu ñëw di gas xabru ba génnee waa ji defoon loolu ñu gas xabroom génnee ko dal di matt lakk ko état bi commencé nag di dellu gannaaw di dellu gannaaw ba Yezid dee Muawiya gannaaw ñeenti at gannaaw bu mu reyee Useyn gannaaw loolu Maxtaar ibnu Abi Ubaydillah Saqafi waa Taif la moo jóg di fayeekul Useynu ba mu jógee ak ñi mu àndal mu dem Irak rey Ubaydullah ibnu Ziyad kooku reer Useynu rey na Amru ibnu Saad kooku njëkkoon a fett fett gi ci jaww ji wala xeex bi tàmbali rey na somar ibn si joosal fayu ci moom dagg bopp bi rey na nag noonu moom maxtaar eh, ba reyee kooku dafa jël cër yi dagget ko sànni ci àll bi xaj yi di ko lekk ne kii mu rey na Ousseynou lii laa koy fay gannaaw ko Ousseynou bi saat ibn Numayr moom mi njëkkoon a jam Ousseynou ci gémmiñ ak fett ñu rey ko jàpp nañu xawli ibnu Yazid rey ko jàpp ki amul askan bu ñu xam rey ko muxtaar ko rey ba pare génne ko ci biti lakk ko ak waa Iraq waa Hijaz jóg nañ fay ci ñoom ak ci waa Kuufa ba rey ci wax naan rubba yawmin bi Karbala am خففت بعض وزره الزورة برنا نقروام تكربلا قعبي أمون في تبغتا مختار جبدي فيك ويفرن نمير وكي وهكذا كي مودي أسين ني لجكري لي مودي سبب بي وتبي في لجكيون دون وتب ديني واي وتب قاد لون أكبرت ak sëb sëb loo kon nag mbir moo xam ne képp ku gëm yàlla bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam doo ci am bànneex bu la naqari nga ci am kon tamxarit euh, juróom-ñeenti fan yi ak fukki fan ya du bési feet bésu naqarlu la boo gisee boo demee Iran Iran bu jotee ñoom ñëpp dañuy dóor seen bopp bay bay dëkk naqarlu parce que ñoom ñoo xam li xew ñun nag ay tuban la comme état amérique ca Damas dafa décrété woon fête ñu war fas yeeg mbaam yeeg jolori yeeg pétard yi rek nit ñi yaakaar loolu bu jotee ñun tam yooyu suñuy eh, nag moo tax bu jotee dana am ñu may ayib damay wax ci rajo senegal ni leen eh, tam xarit amu ci delleen na lu ñu ciy def ci kumbal bi jóge ci yonent bi alayhi salaam alayhi bi da ci daan woor daawu ci def dara ah.